ñuy waxtaanee démb ak tey lu jëm ci wàllub euh, asthme gis ngeen kon ni nga xam ne noonu lañ leen koy defalee saay su ne di topp feebar bi tey nag euh, ki nga xam ne moo di docteur Kër gi Mamika di ci ànd ak ganam ngir nag waxtaanee lu jëm ci euh, allergie n'est-ce voilà ñu gën koo xam nag euh, ci wàllu asthme defe naa ne démb professeur euh, Nafissatou Oumar Touré daal dina si ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci wàllu allergie bi waaye nag saa su ne dañuy bëgg muy gën di leer ci euh, téléspectateur ba tax na itam tey ñu daal di dalal sur le plateau de Petit Déj ki nga xamante ni moom moo di docteur Khady Thiam Tall docteur Khady ñu koy nuyu di ko dalalal ci plateau Petit Déj. maa ngi lay fay c'est docteur Khady Dame Thiam d'accord. maa ngi am mbégte teew fii ci waxtaan ci mbirum asthme. d'accord alors euh, docteur euh, Ndeye xadi Khady Thiam euh, gannaaw nag euh, dem waxtaan nañ lu jëm ci wàllu asthme ak yeneen ni mel tey itam dañuy gën a xuuse ci waxtaan bi gannaaw génne nañ ci semaine de l'asthme mais gis nañ ko ba léegi askan wi dañuy jànkonteeg feebar bi ni mel donc yow loolu lan nga ci mën a wax. waaw lu ma ci mën wax rek mooy asthme feebar bu fi mës nekk la. feebar boo xam ni bu njëkk ba dañuy jàppoon ni réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a développé ñoom ñoo ëpp koom-koom fa la amoon waaye gis nañ ni léegi nu mu bëree foofu noonu la baree fii fekk ne xëy na nit ñi daaw ñu dem euh, hôpital lu bëri dafa fekk ni tamit xëy na nu ñu développé léegi développé wu ñu ko woon bu njëkk ba moo tax de plus en plus ñu ngi gis nit ñu ñëw hôpital ndax asthme di leen yëkkati baax na ci itam journée yu ñu def parce que tax na ñu bëri ba ñu ràññee lan la asthme di ànd ci doomu aadama dina leen pousse ñu ñëw hôpital seet seen yaram bu ko defee ñu mën a xam ndax dañu am asthme wala déedéet. Euh, d'accord euh, ci ci ci nu muy gën di bëree noonu ci xale yi lay gën a bëree ci euh, nouveau-né yi lay gën a bëree ci mag yi wala si si ñan lay gën di bëri. si ñëpp la nekk di yokku parce que comme ni ma ko waxee léegi rek développement bi bokkul donc su le plan industriel soo xoolee par exemple nga jël rek juste benn point de vue ci société bi déjà di nga gis ni société lu ñu yu ñu am actuellement amuñu ko woon bu njëkk ba oto yi daw actuellement nu mu bëree amul woon bu njëkk ba nu ñuy dundee fu mu nekk nii amul woon bu njëkk ba benn exemple boo jëlee ñun suñu maam yi amuñu woon toilette incorporée dans une chambre mm. alors que de plus en plus dañuy am ay toilettes yu nekk ci biir néeg bi donc loolu yëpp moo tax ni ñu koy seetloo ni muy yokkee ci xale yi noonu lañu koy gisee muy yokk ci mag ñi. d'accord euh, donc euh, su ma la mënee dégg ñu wax ça veut kon mi ngi gën di yokk ci xale yi comme ci mag yi euh, donc comme nous sommes en deux mille deux mille quinze est-ce que foogoo ne d'ici ay deux mille deux mille vingt wala deux mille vingt cinq muy gën di yokk. waaw mën na nekk. parce que feebar boo xam ni la dafay dafay dafay dafay méngaloog trop ak suñu environnement donc fi ñuy dëkkee dëkkuwaay yi ni ñuy dëkkee ak fi ñu dëkk daf ci am influence bu bëri daf ci am wàll bu bëree bëree bari loolu ba tax na bu fekkee ni dëkkuwaay yi ni ñu ko dëkkee dafay kon gën di continuer di gën di yokk mën na yokk bu ëllëgee. d'accord euh, donc dañuy faral di gis que ni fii nii euh, ñu ne que nii par exemple que ni euh, léeg-léeg du gaaw a yóbbu xale yi hôpital ñu xool que nii euh, par exemple dafa am asthme wala dafa am problème respiration wala dafa am sax problème mu poumon ba tax na dañ koy yéex a yéeg dañ koy yéex indi ba léeg mën na indi jafe-jafe ci ki nga xamante ne moom mooy dund ak asthme bi gannaaw toog nañ luy bu ñu toogee lu yàgg duñ ko yóbbu l'hôpital yenn jafe-jafe lañ mën a jural xale bi yóbbu hôpital moom ci suñu suñu société la suñu culture la donc dañuy tàmm bala ñu yóbbu hôpital rek fekk ne amatul pexe dem def nañu lu nekk mënuñu ci leer ñu doog a daw yóbbu hôpital waaye asthme tamit fokk nit yi xam ni feebar buy rey la bu fekkee ne daaneel na la jegewuloo fu ñu ko mën a fajee amuloo jumtuwaay boo ko mën a calmer mën na la rey ci saasi bu fekkee ni itam dal na parce que boo defee crise mën na dal saa nga jël garab waaye dal boobu muy dal toujours dafay bàyyi lu mel ni ay légat ci biir dënn bi bu fekkee ni da nga ko def defaat ko mu dal ca biir kër ga jëluloo garab mu bàyyi légat googu su ëllëgee mën na gàllankoor sono yi. d'accord euh, donc nit ki fan lay toll ba ñu defaral ko masque yi nga xamante ni moom ngeen di def fële na la ci l'hôpital ak euh, nit ki nga xamante ni moom moo crise si saa si ban taxawaay lañ ko war a defaral. waaw loolu pour ñu pour ñu mën ko leeral fokk d'abord ñu leeral lan mooy asthme. parce que asthme bu ñu ko seetee mooy feebar boo xam ne day jàpp yoon yi nekk ci biir xëtër bi yoon yi nekk ci poumon bi nga xam ni foofu la dem beek dikki ngelaw bi di am ngelaw bi mën a dugg di mën a génn bu fekkee ne nit bi asthme daf ko daaneel yoon yooyu mooy fatt yoon yooyu mooy wàññeeku seen yaatuwaay mooy wàññeeku lu yaatuwaay bi di gën di wàññeeku nag nit ki di gën a yëg feebaru asmam mu dikkee ko fatt dikkee ko sëqat bu fekkee ne nit bi dafa dem nag ba yoon yi fatt ba nga xam ne mënatul sax wax parce que pour nga mën a wax fa nga mën a nooy su boobaa faw ñu defal ko masque yooyu ñuy def hôpital pour yoon yi mën a ubbeeku pour ñu doog a mën a xam après yan garab lañ ko mën a bindal pour asthme bi mën a wàcc bu baax a baax beneen laaj bi itam mooy nit bu def asthme nit bu ko xam ne asthme daf ko daaneel këram lu ñuy njëkk def moom mooy teg ko foo xam ne am na ngelaw bu doy mais du nekk ngelaw bu sedd parce que ngelaw bi itam bu seddee mun na yokk asthme maanaam maanaam ngelawu wala ngelaw du nekk ngelawu clim du nekk ngelawu ventilateur du nekk foo xam ni dafa am dafa am lay di sedd du nekk noonu foo xam ni daal maanaam mun na nekk néeg ñu ubbi bunt ubbi volontaire mu bañ a ngelaw aussi bu boobaa ñu dindil ko lépp loo xam ne daf koy nacc bu fekkee dafa takk cravate dañu koy dindi bu fekkee dafa takk soutien dañu koy dindi euh, mën nañ ko bañ a tëral bu fekkee ni dafa sentir ni moom toog ci lay gën a mën a nooyee bu boobaa dañu koy bàyyi mu toog parce que du malaat yépp la tëral bu fekkee dafa am jafe-jafe nooyi bu fekkee nit bi yore na ventolinam kër ga maanaam pom-pom yooyu nga xam ni moom la ñuy garab yooyu nga xam ne moom la ñuy wooyee pompe de yore na ko kër ga ñu daal di koy génne defal ko ci même bu fekkee ne jëlin bi baaxul moo gën neen bu fekkee yorewu ko itam ñu daw ci pharmacie ba wala hôpital fu mu gën a jege yóbbu ko bu yóbbu bi mënul nekk ñu ut ko defaral ko ko ci saa si këram. d'accord am na itam mbànd yoo xam ne dañu koy jaay mu ànd ak pompe yi. gën a neex a jëfandikoo ci kër ga bu fekkee nit bi am na ko itam moo gën parce que am na asthme bi fu muy toll pompe bi du ko mën a jël normalement comme ni ñu ko bëggee il faut mbànd yi ànd ak. Euh, am ngeen question. tuuti ci li mu mujjee wax ni parce que. comprendre ma trop en dehors de pompe bi nga ne lan leneen la nit ki mën a mën a am euh, dama ni bu fekkee ni daf ko daaneel kër ga mhm. nit bu yore pompam mën nañ ko ko defaral mhm. bu fekkee ni yorewu ko ñu daw ci saase jéem ko ko utal fu mu ko mën a amee ñu commencé ko ko defaral bu fekkee ni nit bi mënta dem hôpital ci saase léegi nag pompe boobu bu nit bi amee asthme dafay naqaree jël moo tax ñun dañuy faral di bind benn pompe bu ñuy woowee chambre volume chambre d'inhalation pompe boobu mooy ànd ak mband boobu mooy ànd ak pompe bi su ko defee mu gën a neex a jël parce que nit bi bu daaneel bi fooree trop du mën a jël pompe bi comme ni ko bëggee voilà lu ma bëggoon leeral damay dégg à chaque fois ñuy wax que ne pompe bi boo ci dépendant wi da ngay dem ba benn instant dootu la jëriñ dara wala tamit war na mën na causer yeneen feebar ci ki nga xam ne da koy utiliser lu bari bari bari xaw ma nga xam nit ñi ñoom ñoo koy wax wala loolu effectivement dëgg la muy benn question beneen laaj bi mooy euh, hôpital lu tax bu xale bi juddoo bu fekkee ne dafa indaale benn anomalie boo xam ne feebar la comme asthme ñoom duñu ko mën a détecter ci saa si wax ko yaayam mu mën ko faj parce que lu tax ma wax loolu noonu nit dafa juddu ma gis ko ñu yóbbu ko këram lu mat ay semaine xale bi di fatt boo ko nàmpalee muy gàllaat nàmp bi di ko delluwaat nga xam ne loolu su ay waajuram farluwul woon mënoon na ñàkk bakkanam bi ñu ko delloowaat ñu ci la ñuy soog a wax que ne dafa am asma te bi mu juddoog léegi matagul 15 jours lan moo tax ñoom mënuñu détecter yenn yi nga xam ne nit ki da koy judduwaale ba préparer ay waajuram nga xam ne lu ñu gis dinañ xam ne nangam moo ko dal mais duñu dem ba leneen fekk ko ci ñu koy indiwaat hôpital ñoom ñuy soog a wax que ne lii moom moo ko dal waaw maa ngi am mbégte loolu si laaj bu nga ma njëkk a laaj damay wax ni say su ma toogee plateau laajuñu ma ko dem du ma kontaan même suñu ma ko laajulee dama ciy bugg a wax mooy affaire pomp bi parce que dañu am euh, tendance di wax ni pompe bi soo ko tàmmee du la doo ko arrêté daf lay sonal loolu bokk na ci li tax ñu gën a kontaan ci temu bi ci journée internationale moom mooy dàq nañu dàq nit ñi gëm-gëm yu ñu am def ko seen bopp fekk fondewul boobu bokk na ci gëm-gëm bi gën a bëri malade yu bëri soo leen jotee soo commencé bind dañu leen ne docteur mbaa amul pompe soo defee crise d'asthme yoon yi fàtt nga ñëw hôpital ñun masque boobu ñu lay defal mu tudd salbutamol wala mu tudd terbutaline même produit bi moo nekk ci pompe bi te moo ne suñ la ko defalee hôpital da ngay tane kon suñu ko bindee soo ko jëlee ci anam yu nga ko war a jëlee kon war nga mun a tane loolu pour firndeel ni rek mooy garab bi gën a gaaw ci faj crise asm mooy garab bi gën ci asthmatique yi moom mooy sauvetage u asthmatique garab googu daf ko war a téye pompe boobu comme carte fu mu munti dem dafa war a ànd ak moom mooy li ma la wax léegi bu fekkee ni yoon yi dafa fatt ba nit bi mënul wax bu jëlee pompom du ko jëliñ dara kon day am tendance du ko jël di jëlaat du ko jël di jëlaat te du yegg fa mu war a jëm parce que ngelaw bi amul yoon donc dina ko jël lu bëri du ko jëriñ te su boobaa effet secondaire yi nga xam ni raar na lool nit bi am ko dina ñëw ci moom parce que lim ko jël moo bëri te lu banal la day demee ni ko muy lox wala fit bi di tëb loolu banaan la ngelaw kese la ci xëtër bu ñu ko soxlaa lay dem demul benn yoon ci deret bi donc mënul andi benn effet secondaire bu graaw mënul àndi benn problème ci kër bi comme ni ñu koy xalaatee di ko ni waxee pour tënk daal mooy garab bi gën ci asthmatique yi mooy garab bi gën a baax bépp asthmatique daf ko war a am téye ko comme carte dentaire parce que moo koy sauvé. waaw deuxième question bi nag xam nga nit moom mënul juddu rek liir mënul juddu rek nga ni dafa am asthme. loolu mënul nekk wante seetlu nañ ni nit bu bu fekkee ni ñaari waay juróom dafa am asthme xale boobu dinañ wax yaayam dañu wax waaye juróom attention kii suba mun na def asthme bu fekkee ni itam kenn ci waaye jur yi moo am asthme dinañ ko ne attention kii mun na def asthme tout temps sachant que nit bi lu waaye juróom ñaar yëpp di gën a am asthme ci la gën a mën a am risque pour def asthme donc dinañ ko wax attention mais munuñu ko prévenir parce que day am ci dono li ñuy donn kenn mënu ko prévenir mënuloo ko xam également tant que nit bi ñëwul am symptôme am li nga xamante ni moo lay wan ni kii peut-être asthme la maanaam muy fatt muy sakkat wala muy soj-soj bu bëri nga déglu dënn bi nga dégg ni dafay sab wala léeg-léeg sax nga toll fële di dégg dënn bi muy sab tant que xale bi deful loolu munoo wax waaye juróom kii dafa am asthme mën nga ko ragal nag naan ko surveiller ko dee ko xool warul dem fii warul def lii waruñu def nangam ci kanamam waaye jafe na lool pour nga prévenir ko mënul nekk. d'accord Zeyna man euh, fi ma bëgg euh, question bi ma amoon pour euh, madame Khady Thiam bokk na ci li nga xamante ni moom moo di cigarette parce que bari nañ feebar yoo xamante ni saa yu ko mamika àndee ñu débattre ci dañuy gis ne que cigarette bokk na ci li nga xamante ni mën na joxe feebar boobu walla mu sonal ki nga xamante ni moom moo am feebar bi. te ñu gis ni que bëri na ay asthmatiques yoo xamante nii on a amuñu sensibilisation ci li nga xamante ni moom moo di utilisation cigarette parce que euh, ci li nga xamante nii moom la fi médecin bi wax démb docteur Nafsat Omar Touré euh, ki nga xamante ni amul asthme sax te nit di tux cigarette ci wetam gënul ci moom waxuma laa ki nga xamante ni moom moo am cigarette te da gis ñoo xamante ni ils sont asthmatiques ba pare di consommer cigarette boobu noonu. ba ban stade la mën a yóbbu euh, euh, feebar bi nga xamante ni ko waaw siga cigarette moom man damay wax ni mooy xorom ci cin ci feebaru doomu aadama parce que fépp foo jël feebaru doomu aadama ci boppam ba ci wayu tànkam lépp mën na ko indi lépp mën na ko yokk lépp mun na ko gàllankoor même bu fekkee ne dañu ko xam ba commencé ko faj donc ku amul asthme sax cigarette gënul ci yow nga di ko tox cigarette gënul ci yow nga di ko noyyi fu ñu koy toxee waxuma laa na nga am asma donc bu fekkee ni côté boobu tamit ñaari wàll la donc su ñu commencé ci xale ki nga xam ni dafa ëmb di tox gis nañ ni études yi wane na ni kooku su amee doom xale boobu suba mën na def asthme waxuma ni dina def asthme forcément mais mën na def asthme bu fekkee ni dafa ëmb di tox bu fekkee ni itam dafa ëmb am kuy tux ci kër ga moo xam borom këram la moo xam keneen ci kër ga la mu koy nooy bis yàlla sàkk xale boobu su juddoo mën na def asthme bu fekkee ni itam nit koo xam ni la kenn ci waay juróom wala ñaari waay juróom yépp dañu am asthme wala ci ay maamam dafa am asthme kooku su fekkee ni dafay tux wala mu dëkkee di nooy xetu cigarette fañ koy tuxee moo xam ci kër ga la moo xam ci l'école ba la moo xam ci liggéeyukaay ba la suba kooku mën a def asmu parce que saxaaru cigarette boobu dafay irrité dafay sonal torop yoon yi di noyyi bu fekkee nag nit ki dafa exposé woon dafa amoon risque pour def asthme dafay daf koy gën di yee dem na ci itam ba bu ñu dee faj feebaru asma boobu saxaaru cigarette bi dina gàllankoor lool njëriñu garab yooyu. bu fekkee ni tamit nit ki kon dafa am asthme ba pare di tox am na ñaari problème dinga def garab pour faj asma bi. du efficase trop nañu ko buggee woon beneen problème bi itam mooy fumée bi ci boppam saxaaru cigarette boobu dina indi beneen feebar ci dënnam boo xam ni xaw na nuroo sax ak asthme parce que moom itam dafay fatt yoon yooyu nga xam ni fa ngelaw bi di jaar di dem di ñëw kon kooku day yokk jafe-jafe nooy yam yokk jafe-jafeem pour def activité yu bëri parce que xam nañu ku nooyiwul doo mën a def li nga bëgg <laughs> tamit yemul rek ci saxaaru matt dafay. Eh, saxaar yëpp la saxaar yëpp ñoo baaxul ci asthmatique. bokk na ci matt bokk na ci saxaaru këriñ bokk na ci xet bu ñuy boyalee bokk na ci saxaaru cuuraay cuuraay moom nga taal nga bañ a taal yëpp baaxul ci asmatik gënul. foo ko mënti taalee parce que saxaar amul frontière. boo ko taalee ci saal bi mun na dem naaw ba ci néeg ba kenn xamul fu muy yem. man li ma bëggoon xam mooy que ni ki nga xamante ni euh, dafa am asthme bi euh, est-ce que tamit euh, léeg-léeg bu jànkonte yenn feebar par exemple asthmatique bi nga xamante ne dafay tuux cigarette est-ce que mënul jànkonte yenn fee yenn feebaru bronche yu ko demee ni ay BPCO ak yeneen loolu yan jafe-jafe la mën a indil ki nga xamante ne moom moo am ñaari feebar yooyu. waaw defe naa loolu xaw naa ko brosser tuuti tout à l'heure. donc dama ne kiy tox bu fekkee ni moom dafay tox saxaar jàpp yoon yi nga xam ni fa lay noyyee léegi nag loolu moo koy andil sëqat bu tegaloo ci ay weer yu bëri dem ci ñaari at loolu la ñuy wooyee bronchite bronchite boobu nag su yàggee ba fatt yoon yi moom la ñuy wooyee BPCO maanaam bronchite boo xam ni dafa ànd ak yoon yi di noyyi mu fatt obstruction ci yoon yooyu nga xam ni fa la ngelaw li di jaar donc bu fekkee ni am na problème boobu boole ci am asthme nga xam ne dafay fatt yoon yi ñaar yépp suñu bokkee ci doomu aadama bi jafe-jafe lay ànd ci noyyi wam donc jafe-jafe ci activité donc maa ngi lay yaa ngi wax ci côté saxaar mhm. saxaar itam mën na nekk ci saxaaru saxaaru diwlin par exemple léeg-léeg ñu bàyyi diwlin bi ba mu sens yenn mhm. soxna yi di ko di di togg mhm. yooyu tamit est-ce que mënoo si ñëwaat tuuti waaw lépp loo xam ni moom saxaar la wala xet bu foor moo moo nekk xet bu neex la mu nekk xet bu naqari la baaxul ci asthmatique parce que su boobaa dafay sonal bronche yi nga xam ne yoon yi fa lay ngelaw li fa lay jaar lépp luy sonal bronche yooyu nga xam ni ngelaw li fa lay jaar mën na yee feebaru asthme donc moo xam da nga teg diwlin mu sens trop ba fort dafay dégager xet moo xam da ngay boyal mu mu boyagul dafay dégager xet moo xam da taal matt dafay dégager xet dafay dégager saxaar loolu yëpp génnul ci ko am asthme. voilà bu fekkee yéen a ngi doog a yeewu nag jàppale ni yéen ngi si li nga xamante ne moo di petit déj ba tey sur la meilleure des chaînes euh, Walf TV ñu dellu siwaat ci suñu plateau petit déj wéyandi li nga xam ne moo di waxtaan wi euh, di ci ànd ak ñaan ñi nga xam ne ne naa leen mardi bu jot ñu teew fii euh, ngir nag jotal leen li nga xam ne moom mooy jëm ci seen wàllu rubrique savoir vivre savoir être mamantandoo di leen ko jagleel mardi bu jot tey nag mu ciy dalal ki nga xamante ne moo di Diadji Touré nekk ancien présentateur télé fële ca RTS ki nga xam ne moo di góor gi Samba Ndiaye tamit xam ngeen ni mardi bu jot daf fi teew ngir nag euh, lu jëm ci wàllub euh, site historique ak tourisme euh, actualité oblige mu yóbbu leen nag ba fi nga xamante ne moom mooy ci grotte boobee nga xam ne moom mooy grottub Seydina Limam nga xam ne nag 1001 mi ngi nii moom kilifa gi mu daal di fay nekk nag moom itam mu ci dalal ki nga xamante ne moom mooy Seydina Issa Diop Thiaw Laye comme nag dañu jàpp ni rek mardi tey bi moom ñëpp laay lañ sant ah. Mamanta ma daal lay bàyyi yow it nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñooy seetaan. ok ni nga ko waxee noonu la Seynabou Ndiaye euh, tey moom nga ne ñëpp laay lañ sant ah. kon ñu ne laay laay ah. <laughs> laay Maxtaar voilà ni ñu koy defee kon saa su nekk comme tous les mardis daal di fi teew euh, ci li nga xamante ne moo di rubrique euh, savoir vivre savoir être saa su nekk ni ñu koy defee dellu si nañ donc une semaine après naan la namoon nañu la c'est un plaisir de partager toujours le plateau avec toi Zeyna tey nag lépp lu jëm ci wàllum port maanaam solu jim ci ñi nga xam ne ñoo di présentateur télé yi muy journaliste bi wala di animateur bi euh, solka bi ak li nga xamante ne donc mooy euh, naka ngay solo ba doo agressé naka ngay solo ba da correct en face du public bi nga xamante ne ñoom ñoo lay seetaan euh, waxoon nañ ci couleur yi àndoon ci ak benn designer muy Morphal ñu koy nuyu au passage tey nag ñu daal di fi dalal koo xamante ne c'est un pionnier du euh, journalisme koo xamante ne euh, ku yàgg la ci wàllum journaliste euh, marqué ci li nga xamante ne moo di empreinte am tax te suñ choix ci moom ngir daal di mën a échanger ci lu jëm ci wàllu woowee maanaam le port vestimentaire naam dinañ ci wax dinañ dugg itam ci li nga xam ne mooy contenu bi ak naka ngay yeggee li nga xamante ne mooy xibaar yooyu public bi lay teewlu euh, saa su nekk mu nekk journal nga xamante ne dafa nekk lu am solo ak yeneen débat yoo xamante ne dinañ koy faral di teewlu ci suñu télévision yi euh, donc Zeyna sans plus tarder bi ma leen euh, nuyoowee góor gi Samba Ndiaye sama confrère bi ma sonal bi ak ki nga xamante ne moo di invité am nuyu itam sama invité mu di Diadji Touré di suñu doyen di suñu pàppa ni ma ko waxee tout à l'heure di ko bàyyi mu nuyoo ak suñu téléspectateur ak auditeur de la waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyoo ci nuyu bu sel di ci boole li màndargal bés bi muy ku nuyu sa morom ni ko laay laay waxtaar mhm. lépp jëm ci borom bi subhaanahu wa taala euh, thème bi ñuy waxtaane tey yaa ngi may présente ci ku daan def journal télévisé yàgg na lool waaye ndax jamono boobu ak jamono bi benn la xëy na bu débat bi ubbeekoo looloo waral tey ñu koy waxtaanee ndax nee nañu du ko jamono la ñu seet kon fan la ñu jëmale ak fan la ñuy jëmale ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu pour li ñuy taataan ñu mun ci am njariñ surtout yéen ñi nga xam ne yéen a nekk tey wuutuñu ci plateau bi ñii di suñuy doom ñii sax di suñuy sët ndax bañ koy def yàgg na lool booy seet comme yàgg bàyyiwul dara moo waral ñu toog fii di ko wax. di bokk jataay bi nag ak ñoo xam ni xëy na lañ leen magee fas mun koo daw waaye ba tey comme ñoo bokk métier mi at yi dafay daal di effacé wu ñun ñëpp ci bokk jublu ci waar wi jërëjëf. Euh, mm. ma euh, rakk bopp <laughs> donc comme euh, comme comme ni nga ko waxee noonu la tey dañuy ànd ak laayeen xam nga tey la Euh, nekk seen euh, moo nekk seen premier jour ci appel bi mhm. donc Cambérène la ñuy jëm après su ko defee ngoon si ñu dem ci grotte bi mhm. donc loolu moo tax euh, ñuy waxtaanee fi nga xamante ni foofu la lépp sosoo mun nañ ko wax donc Seydina du ma du ma dina ci ñëw incha allah donc ci grotte boobu sànq yaa ngi koy wax nee nañu leeruk Seydina Limaamu Laay def na fa lu ëpp junne at donc gannaaw ba nga xamante ni jógee na ci fi nga xamante ni mooy bërëb bu sell ba di mu mukarram Euh, Màkka la juddoo Madinatu Munawwar parce que Madinatu Munawwar donc foofu la yonent bi génne àdduna donc leerug yonent bi euh, euh, moo jógee foofu noonu nee nañu donc ñëw fi nga xamante ni mooy grotte bi def fa lu ëpp 1000 ans donc mu mel ni kon foofu la lépp sosoo ak sunu invité donc dinañ dugg ci détails yi et tout dugg ci sens bi nga xamante ni wala importance bi nga xamante ni grotte bi am na ko ci communauté Layène bi Seynabou. voilà Euh, ñooy seetaan aouzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi lalil azim tallaahi laxad asaraka allahu alayna wa in kunna la xaanitiin rabbi aouzu bika min hamazati shayatin wa aouzu bika rabbi an yaxduruun rabbi sharax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullah ah, maa ngi am mbégte ak kontaante bu rëy ci suma premier jour suma première fois bu ma ñëwee ci télévision Walfadjri eh, ci petit déj fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan boo xamante ne ñu ngi ñaan yàlla may ñu bu ñu ko waxee mu neex a dégg xol yi eh, nangu ko maa ngi nuyu suma tonton di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm moom it ba lépp lu lu dëkk bi askan wi soxla ci moom ci lu war a leer mu leeralal ñu ko di leen ziyaare bu baax laay maxtaar <laughs> voilà Mawanta kon yaakaar naa ni euh, jot na ci ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi comme ni ma ko waxee nga wax koy tamit euh, lu jëm ci wàllu port vestimentaire euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy présentateur télé yi. ni ko waxee noonu la donc lépp lu jëm ci port vestimentaire ñeel. présentateur télé yi euh, mais sans plus tarder Seynabou Ndiaye li ñuy def rek mooy euh, ginnaaw bi ma ñëwee ci li nga xamante ne donc mooy euh, présentation voilà donc suñu invité ma fàttali nag rek ne moom jot na présenté journal RTS ci jamono 82 jàpp 85 jamono jooju jot na présenté li nga xam ne moo di le journal télévisé de 20 heures si je ne me trompe tamit daan na animé benn plateau débat boo xamante xamante ne da doon am yi gan itam euh, foofee nga xam ne moo di RTS mais avant loolu jot na pratiquer li nga xam ne moo di journalisme ci rajo yi ak euh, à l'international France Tel euh, ci say kàddu la voix de l'américain voilà de l'Allemagne voilà foofu itam jot nga fa exercer jot nga itam jàngale li nga xam ne moo di wàllum télé te eh, école yu taskatu xibaar yi nga xamante ne eh, fës nañ fii bu ci mel ni CESTI nekk eh, bi jiitu deux mille jot nga fa jàngale école bi nga xam ne moo di ISIC également institut supérieur des sciences de l'information et de la communication itam jàngale nga fa ci atum 98 ak 2000 voilà donc euh, euh, CI archive euh, dinañ ko xool ci kanam ak la complicité de la régie ànd ceeg Modou Diouf ak Papis mbay bu vidéo bi yembee rek ngeen daal di ñu def signe su ko defee ñu xool ko ak suñu téléspectateur mais sans plus tarder ñu daal di jàll ci waxtaan bi balay vidéo bi di ñëw voilà dafa mel ni ñu ngi ñuy def signe ne vidéo bi ñëw na voilà kon ñu xool vidéo bi ak Diouf dellu siwaat ci plateau bi ngir mën a waxtaan euh, ci li nga xam ne moo di suñu sujet savoir vivre savoir être bu tey ji à dire écoutez j'ai été mettre euh, mon malade euh, à Fann donc il y a ces problèmes donc de répugnance il y a ces problèmes aussi de de lourdeur euh, administrative et aussi il y a un problème c'est que euh, l'opportunité n'est pas offerte au ministère public d'intervenir à tout moment il n'intervient qu'en cas de fureur Il faut que vraiment la fureur soit, soit évidente. Et à ce moment-là, qui c'est qui est habilité à dire que ce malade-là est en état de, démence totale. Et à ce niveau-là, je pense que, vous savez, les, les, juges, les juges, je suis magistrat, ont, ont, ont la souveraineté. et je trouve ça peut-être un peu euh, paradoxal, puisque n'étant pas médecin, mhm. euh, n'étant pas habilité, à dire que telle personne est complètement folle, euh, un, un, un, on peut le faire. en se basant sur un principe de droit qui veut que le comportement d'un individu s'évalue en fonction d'un comportement d'une personne euh, normale, euh, prudente, avisée. Bon, dès l'instant, on peut placer quelqu'un en disant il n'est pas normal. Mais je pense que c'est tellement délicat, si on prend compte justement de ce problème de liberté individuelle, que pour prendre sa décision, euh, le juge doit se garantir hein, de toutes euh, les précautions. Et la précaution la plus évidente, c'est de demander une expertise médicale. Et là aussi, je, je, ne fais pas le procès des médecins, vous, vous, vous m'excuserez d'être peut-être un peu longue, mais vous savez, quelquefois, on n'est pas tellement renseigné. Il y a un débat euh, qu'on a souvent sur justement les, rapports ou les conclusions de cette expertise médicale. On nous met quelquefois, euh, vous savez, il se trouvait euh, dans un état euh, n'engageant pas euh, sa responsabilité ou de nature à atténuer sa responsabilité. Je pense que ça, quand même, ça n'aide pas tellement. Euh, le juge toujours à prendre une décision adéquate. Alors, à propos de l'expertise médicale, mais d'abord la corresponsabilité de l'administration hospitalière. Mm-hmm. Monsieur Dieu. je voudrais simplement dire qu'en fait, le, le placement d'office, on ne peut pas tellement euh, l'incriminer parce que dans tous les cas, c'est la loi qui organise ça. Euh, pour dire en fait que le malade, enfin, ce, type de malade tout à fait chronique est très très lourd. Français de France, <laughs> <laughs> ñii noonu mhm. ñu gis euh, donc euh, archives yi images yi franchement ni nga ko waxee na nga image daf la neex. man image yu njëkk yi daf may neex. <laughs> parce que euh, tenue bi daf ci nekk. Mhm, surtout ni ñuy waxee bokkul ak ñun ni ñuy defee. ku ci nekk da ngay xam ni nga war a. en rafet na daal rafet na voilà mhm. donc. fois mu nekkoon ay image archive euh, presse club di euh, débat boo xamante ni doon nga ko animé foofee ci RTS euh, monsieur Touré Diadji Touré donc gis nañ la bi ngay animé débat bi en costume cravate voilà vous avez franchement. port vestimentaire bi ni ko naa waxee nekk na loo xamante ni c'est impeccable tax nag ñu lay laaj euh, monsieur Touré Diadji euh, li nga xamante ne moo di port vestimentaire boobu boo doon euh, jàngat avant ni meloon ak léegi jamono ji ñi nga xam ne ñooy présentateur télé yi nooy wax dafa jëm kanam wala dafa gën a sooxe fi mu toll nii tout à yaa ngi naan jamono la du jikko jamono je sais pas genre ni ñu ko waxee noonu quoi mais. est-ce que dafa wàññeeku dafay sooxe wala dafa gën a jëm kanam. waaw xam nga moo tax euh, lépp lay wax foog nga ànd ceeg maandu li taxoon ma ne du jikko jamono la ñun suñu jamono xel xalaatul woon ngay dem télévision surtout un grand moment de télévision bu mel ni journal télévisé def bras de chemise wala nga sol chemise sans cravate wala nga sol sa costume bu xaw a cëkk xel xalaatu ko woon ndax xëy na environnement bi la woon boo seet ñun bañ koy def. daf fi am ay kilifa yu mag yu fi nekkoon waxuma ni ñoom ñoo taxoon ñu daan solo de waaye dafa am lu mel ni éducation maanaam yarin bu nekkoon ci ñun ba nga xam ne buñ la waxul sax yow li nga war a def xam nga ko di maanaam colu col bu jiw parce qu'en fet du costume rek mooy tax nga yiw ndax boo fàttalikoon ni wala nga bàyyi xel ci ni da ngay dugg ci kër nit ñi te du ñoom ñoo la invité waaye ñoom dañoo jënd seen poste télévision teg seen antenne di fay sax redevance pour certaines chaînes de télévision taal seen télévision rek nga ni jimeet ci seen kaw boo ñëwee war nga fa ànd ak yiw ak teg ak tey ak dal dal ko googu macha allah c'est pas pour vous jeter des fleur mais gis naa ko ci yéen te dafa am solo ci biir kër nit ñi ngay dugg ndax xam nga télévision dafay médium boo xam ne dafa tàng moom ci boppam dafa tàng ndax la mu àndal moo tax ndax ay ànd ak gis-gis ak dégg-dégg yow bi nga xam ne nag yaay servir boobu médium danga nga war a ànd ak dal ak tey moo koy compenser sinon boo ñëwee sa përëx përëx comme di dit trivialement avec vos gros bëgg toj lépp nit ñi dañ naan nañ seeti leneen parce que nañ nañu ba feneen amee ba léegi kenn sonnatul léegi bu ñu dellu see ci col gi xam nga sol costume ak cravate ci jamono daanaka mën nañu dafa xewoon mënoon nañ sax ni ma doon le mës ci kuy toog télévision di wax waaye man yàlla def na bu àjjum masaan jot su may dem di def journal télévisé damay sol yëre wolof te yëre wolof fii ju toll ni tembe yëre tubaab yóbbulu ko dara li nga xam ni ngi koy sole ak colin wa ak la ngay sol naka la ko nit ñi di gisee mu bañ a nekk des couleurs trop chatoyantes yoo xam ni day luqi bët bu mu ëpp moo waral bu ma dellusee ci sa laaj la démb ak lii tey lii différence bi mooy xëy na ñun kersa bi laloon li ñuy liggéeyee amoon nañu kersa ci ñu ñuy gis ci yenn yi ndax wolof nee na ku boot xaj ku ku ku boot bukki xaj baw la du noon lañ koy wax su ko defee te ku dee ca marché ba yaa jaay yaa tàggee sa bopp yow da ngay génn ñu naan kii mooy diw mais kooku ñu naan diw war na am melokaan bu mel boo xam ni du caagee ni fooy toll rek yaa ngi sañ sañse wala yaa ngi sol waaye nga yiw ba ku la gis bañ a am kersa ci na lay da nga koy fekk ci biir saalam ndax booy wax dangay dugg ci kër yoo xam ne ay kilifa yu mag nga fay fekk wala nga fekk fa léeg ay nit ñoo xam ni xëy na sax loolu du seen jumtuwaay waaye nee nañu sanction bi gën a neex ci kiy def télévision moo ñu dem ba dara desul lu dul war a reer surtout boo dee def journal télévisé bañ ne reer bi teg nañ ko ñu taal télévision bi gis ni mooy diw ñu ne ah nañ xaar seetaan ba pare kooku lu neex la ci xol waaye bu ñu nee diw la ñu ne waaye nañ reer kii du ñu tardeel wala ñu zappé kooku sanction la te kenn ku nekk da ngay ñaan yàlla ci la ngay liggéey nga am ci xereñ wala nga am ci màndarga boo xam ni foo toogee nit ñi ñu am yàkkamti li ñuy wax xiif na ma yàlla baal ci ni ma koy waxee xiif ci gis la wala xiif ci déglu la donc colin wi bu daaw wala bu bu démb ak bu tey lii différence bi rek mooy ñun am na ci lu ñu tàggatoon loo xam ni xëy na binduñu ko fen ni da ngeen war a sol costume waaye saa yu ñu dem di def journal ña ngay seet na mu gën a rafete na mu gën a selle pour sol ko léegi nag mën ngaa sol sa lu doy waar amoon na fi ci chaîne télévision du ma xam ngeen ko koo xam ni bu ma saan génn danaan tel xëy na sax am na ay fit yu daan dem ci na mu daan excentricité bi mu daan def ci colinam ak na mu ko daan defee waaye style la parce que loolu tamit il faut ñu bàyyil ko di du ñu def jugement de valeur maanaam c'est le style qui fait l'homme di nga am ñoo xam ni xëy na yiw euh, jigu leen yiwa di moo leen jig de sorte que dañuy defee rek na nga xam ne noonu la ñuy gën a attirer seen kii te ñooñu it am na dañu seen public ça aussi il faut pas l'oublier en télévision dafa am kenn ku nekk ak sa public mhm. ñii dañ naan lii la ñu taamu ñii nii lii la ñu taamu waaye bu ñu fàttee lenn comme que da ngay violer intimité foyer yi ndax yaa ngi dugg ci kër yoo xam ne kenn neewul ni yow la soxla nga ñëw dañ ne soxla nañu information parce que am nañ ci droit boo fay dugg àndal ak yiw waaye ñoom boo fa àndul ak yiw sañ nañ ni ñoom it kii moo soof ngeen baal ma ci wax bi wala kii moo nangam kii moo nangam te loolu mooy jugement de valeur. Mm-hmm. loolu dina la yàqal dana yàqal chaîne ba ngay liggéeyal. d'accord ni nga ko waxee noonu la booy dugg faaw nga yiw. bu ma déggee ci say kàddu hmm. sobriété daf ci am solo hmm. élégance am ci solo ak nga correct tamit ñett yoo xamante ne euh, noté naa ko su ma déggee sa kàddu euh, hmm. jaaji ture mais itam euh, ma bëggoon a xam loolee nga xam ne mooy kersa bi ngeen daan am yéen ci maanaam ci colgeeg yooyu xam nga jamono jooju médium yi bëriwutoon télé yi benn rek la woon buñ doon wax mais léegi est-ce que du prolifération yi ni télé yi yokkoo concurrence bi bëri est-ce du loolu tamit joué na ci li nga xamante ne mooy bëgg def tolérance ba tax ngay def loo xamante ne euh, méngoowul ak li nga xam ne mooy yoon li nga waroon a def ci côté soline bi. loolu nangul daal ko bañ nañ ko bañ révolution bépp boo gis day jëkk jaxase xel yi te xëy na xale yi tey bu ñuy def télévision xëy na loolu lañ ci jublu. te bul fàtte ni tamit jamono dox na ba nga xam ne ñun am na suñuy jamono loo xam ne bu ko dit masaan def ci télévision bi dañ lay ŋàbb di la reetaan ni xanaa kii ay xelam wayul mm. ci colin ci waxin ci jëfin waaye léegi dem nañu ba xale yi bu la neexee peñe moom doo ci jaar ñun xal xalaatu ko woon dem nañu ba xëy na sibis bi ngay sol tant que bouton yi jaxase woo ko bokkoo kooku tamit comme ni ma la ko waxee léegi télévision bu nekk ak xëy na lii sa ligne éditoriale wala ci fa nga bëgg jëmale. Mm-hmm. ñi ngay xëcc muy différence bi nga doon wax léegi di maanaam kii sol na baxa fii duñ fi sol baxa cuub lañ fi sol kenn ku nekk nag tànn ba neex tànn ci tànn sax bu neex boobu nag différence ba foofu la nekk waaye booy seet ca biir booy gëstu ca biir mhm. fa mu gën a yiwee fa mu gën a selle mooy ëpp nit jaare mhm. tout wax nga ko nee nga cravate dafa am solo mën nañ wax bu fekkee journaliste bu góor bi la dañ dama bëgg ñu ñëw ci ku góor ki ak ku jigéen ki mhm. bu dee journaliste bu góor bi la muy débat politique wala muy journal télévisé impérativement danga nga war a sol cravate costume cravate wala nga bañ a def costume nga def chemise cravate wala lan la ñuy digle Lacoste itam dinañ koy gis est-ce que Lacoste bokk na ci loo xamante ni mën nga mën a toog di présenter journal wala ngay présenter page bu mu mënti doon ci li nga xam ne moo di journal télévisé bi nga sol ko Lacoste wala chemise manche courte genre yooyu mën nga ñëwaat ci col bi. waaw am na ñuy solo noonu fab seen chemise manche courte à l'américaine takk seen cravate dana rafet ba dee. waaye daal ci man ci sama gis-gis mën naa juum nag. Mhm. bokkul daal ci man li ma naw. ci booy dugg ci kër yi kilifa di wax ak ñoom parce que encore une fois da ngay seet kër ya ngay dugg ñu la fay seetaan ak di taataan sa li ngay wax donc Lacoste bi tamit bu dee da ngay def une page sportive mën na méngoo ak la ngay def bu da ngay def une page musicale mën na méngoo ak li ngay def parce que tamit nag il faut ñu wax côté muy dëkk mënoo am par exemple une émission enfantine di wax ak xale yi bëgg sol costume cravate bu boobaa xale yi dañ lay ragal loolu tamit wax dëgg yàlla sax fay dafay sérieux ba mu te ñun sax xëy na reproché waaye comme ni nga ko waxee chaine yi barewuloon ñu ñu daan seetaan moo ëppoon ñu ñu daawul seetaan parce que ay moment la woon yoo xam ni boo ko seetaanul seetaanoo dara ndax moo fi nekkoon te yaa fi <laughs> taxaw falu comme nañ koy waxee waaye jamono yi bu fekkoon toon ni euh, ay émission enfantine comme ni ma ko gisee léegi am na. Mhm. man su ma fay dem du ma sol costume ak assis entre deux sièges. da ngay da ngay sol loo xam ni xale yi bu ñu la gisee. Mhm. nga méngoog ñoom parce que loolu tamit dañu koy jàngal ci métier mi. xale booy wax ak moom doo taxaw ca kaw mu nekk ci suuf da ngay sukk sax mel ni kuy raam ni moom. Mhm. su ko defee mu ñeme la la nekk ci biiram nga mën ko génnee mën ko saraa nit ñëpp mën ci jot. donc sol bi. solo bi daal pour wax la ci sama aqulayi euh, taala mu ngi dépendre ci contexte yi. contexte bi surtout waa bu fekkee añ matinal la genre bu dee suñ bos la. nga def couleur yu gée comme bee ko doon waxee. waaw mhm. te macha allah ni ngeen solo daal man naw naa ko. Mhm. ndax euh, yaakaar naa ni méngoo na ak plateau bi ju nekk. Mhm. Serigne Laye nii mu ñëwee bu jógee fii mën na dem ci Laye nii man mii lii ma solo. bu dul question wu âge sax su ma jógee fii bu ma neexoon dem ca yi ñi tamit taataan fa. mën fa ziyaare donc question de contexte la waaye télévision bi daal ci gàttal ci li gën a wóor na ñëpp xam ni objet télévision maa ngi doon wax tàng-tàngam léegi mais dafay am fascination donc sujet bi tamit dafa war a fasciner dafa war a fascination boobu boo bëggee ma jox la ko ci misaal xam nga sa rajo boo ko taalee te amagoo signal xur xur boobu muy def te rajo laa tàmbalee kon nag xeebuma leen xur xur boobu muy def daf lay géttan ba nga fay ko télévision mën nga ko taal amul signal muy rey rey nga toog di ko seetaan ba ëllëg boo ko seetloo laa wax. Mhm. même bu amul signal loolu ñuy wax ay pixel muy la aut définition la haute résolution di la génneel di couleur ngay def ba ci techniciens yi di ko def ngeen baal ma techniciens yi di ko def pour def seen ay test ak seen ay réglage fascination boobu muy génne boo ñëwee nag ni tël yàlla may la xëy na nga am lu la yàlla may ci. teewaay ak ci taxawaay mm-hmm. ak ci colin ak ci teggin nit ñi mën la dugal seen kër ba booy génn boo ne ba ëllëg ak jàmm ñu ne incha allah ba ëllëg ak jàmm mm-hmm. foofu nga wax sax dafa am solo parce que dafa dafa ñëw ci question bi ma bëggoon a ñëwaat ginnaaw solo bi xam nga wax nañ góor ñi jigéen ñi itam mën nañu wax ne rek euh, na nga correct daal muy góor di jigéen na nga correct hmm? voilà mais nañ ne nga itam fascination bi télé bu fekkee am nga présence bi nga xamante ne euh, présence boo xam ne yow tu peux à la télé ñuy muy kàddu boo xam ne dinañ koy faral di employé mu di télégénique mm-hmm. télégénique dinañ ko faral di employé mm-hmm. ñu lay laaj euh, kañ la ñuy wax ni diw dafa télé télégénique diw war na def euh, télé parce télé ngeen dangeen di faral di wax euh, ni journaliste yi diw mën nga def télé diw defal rajo diw defal presque écrite. Mhm. xam nga loolu yëpp di ngeen koy wax. te am na sa euh, benn entretien bu ma jot xool gis naa ne yaa ngi ci doon wax ni étudiant en journalisme yi waruñu am complexe su télé. maanaam yow bu fekkee yaa ngi rajo xamal ne rajo ça fait partie des médiums yi nga xam ne ñoo gën a foor voilà télé peut-être kii na mais rajo moo gën a fort parce que rajo dangay ngay wax ñuy dégg sa baat nga war a capter attention ki lay déglu ba du zappé donc mën nañ ne rajo gën a métti mhm. euh, ba ci entretien boobu nga naan euh, les étudiants journalistes ne doivent pas avoir le complexe de la télévision mhm. euh, ñu gis nag léegi Euh, euh, genre Anta gi rek bëgg tele bëgg siiw hmm? bëgg boo defee journalisme rek yaa ngi télé télé laay def je me spécialise en télévision télégénique kañ lañ koy wax di war na def télé di warta def télé kañ lañ war a wax euh, lu ni mel. laaj nga question bu xaw a délicate ndax xam nga yàlla moo bind te yemalewul am na ñoo xam ne boo leen xoolee rek sopp leen am ñoo xam ne boo leen xoolee waxuma daw leen sopp hmm. waaye dangay am tuuti gàttañlu ci ni kii bëgg naa mu toog jàkkaarloog mbooloo di wax te mbooloo télévision bi moo lay projeté ci mbooloo xam nga yaa ngi wax léegi rajo man rajo dafa des ci sama xol te ci kàttanu yàlla ci temps yu néew danaa am lu ma liggéeyaat ci télévision incha allah. incha parce que rajo li mu indi ci wàllum tàggat télévision du ko def ndax télévision daf lay fabal yëpp tegalal sa kanam yow da ngay toog rek puudar sa kanam sol sa col gu rafet toog di wax ak nit ñi. rajo nag li ñuy wax naan euh, yow yaay créer événement bi en rajo boo ko jëlee ba ci sportif yi danañ la wax bal bi fu mu jaar fa joueur bi jaar ba dugal ko mhm. jox la ku ci mel ni laay jëw ay détails yoo xam ni télévision moom da ngay toog rek di gis bal bi muy dem ka nekk télévision bu la nee but wax na la lu ëpp parce que gis ko ka nekk ca rajo ba foog mu la ni but mhm. expliquer la nu mu demee donc ki day accompagner événement kii daf koy mettre en forme léegi ci laaj bi nga wax lan moo télégénique man amoon naa boobu problème bi may jàngale CESTI parce que deuxième année laa fa yoroon. Mhm. maanaam boo defee première année tronc commun la deuxième année tronc commun la mais deuxième année boo fay jógee da ngay war a def option da war a dem télé rajo wala presse écrite am na koo xam ne mere woon na ma sax parce que ba ma ko orienté wul télévision. Mhm. daf ni ma man foogoon naa dag mooy orienté man ni ko déedéet c'est pas si automatique boole ceeg ab koo xam ne jege dama lool. ci métier bi la nekk mm-hmm. am ay jamono ba muy def stage mu bëggoon def télévision am koo xam ni xam na daf ko doon def rek ngir kaf waaye wax bi dafa rëy mu ne kii duma ko jël télévision ndax dafay tiital xale yi wax bi rëy na mm-hmm. waaye dafa doon nitu kaf kaf waaye booy seet déjà benn jugement bu fort a ngi noonu mm-hmm. de sorte que ñii nga xam ne dañuy dem télévision ñoom ñoo war a seetal seen bopp est-ce que ba may def sama ay session intensive comme ni ñu koy defee ndax ba may def sama ay euh, euh, euh, exercice application ndax dama gisee sama bopp ndax mën naa génn télévision su ko defee nag ka nga xam ni mooy dogal moo yore dogal bi dana xool ndax kii dama koy rendre service. Mhm. su ma ko yóbboo télévision wala rendre ma ko service télégénique du rek plastique bi am na koo xam ne ñeme naa ko cité mhm. Idrissa Seck laay wax. Idrissa Seck ancien premier ministre. am na benn charme bu nekk ci moom boo xam ne bi daanaka buy sourire daf la koy communiquer. Mm. et en fait en télévision on communique. parce que la gestuelle compte beaucoup en télévision. dina am loo xam ne boo ko defee je disais que toujours sama cadreur maanaam ki yore caméra bi damay taamu toujours mu taxaw jàkkaarloog man parce que bu fekkee dañ da nga dem ba léeg mu am benn tiitaange boo am ndax booy xalaat ni. ay nit ñu bare ngi may seetaan. xam nga léeg-léeg mu am lu mu def ci yow. léegi nag pour que loolu nga transcender ko moom la ñuy wax quelquefois le chat dans la gorge sa baat bi xur-xuri. Mm. doo xam loo ciy jabe. ndax baat bi day xat. Mm-hmm. booba da ngay xool kii ni kii sama xarit la. kii di def cadreur moom laay xool teg ko comme xarit boo xam ne damay waxtaan ak moom su ko defee loolu déjà dana am lu bare lu mu dindi ci yow ci wàllu track en même temps ci moom mën nga seet effet yi ngay def. ca public ba boo waxee ba reetaan mu reetaan nga xam ne li ngay li nga bëggoon am nga ko boo waxee ba sëngeem mu xam ne li nga wax di nga bëgg ci nit ñi sëngeem ko kob yow am nga ko parce que la nga bëgg mu def la mu def xam nga xel ni ci foyer yu ci bare en tout cas dañuy seetaan noonu la ñuy def mm-hmm. donc yooyu effet dafay am waaye nag du doon lu ñuy bind loolu tamit bëgg naa ñu dellu si ci. du doon lu lu ju bind loo xam ne da nga koy jàng. waaw waaw dafa war a nekk. Euh, expérience la expérience comme tous les arts expérience la boo xam ne yow da nga ciy am loo xam ne danga ciy toog mooy mhm. sa xam-xam boo xam ne ku la ko laaj ko jox ko ko fu ñu la fayee nga jàngale ko bu ñu la fayal ko topp ci sa xam-xam loolu it na ci. Mm-hmm. wax nga ko nee nga télévision comme tous les arts. Mm-hmm. expérience laaj yooyu sama laaj bu may indi laata samay naataangoo di ñëw ci seeni laaj. Mm-hmm. Euh, nee nga art la journalisme liggéey bi ñuy def nii c'est de l'art. absolument nañ ko wax euh, si sax euh, si je ma me trompe Gorgui Samba amoon ngeen un professeur boo xam ne day jàngale tout ce qui est élocution. diction diction voilà. Lucien Lemoine Lucien Lemoine Lucien voilà léegi mu mel ni journalisme. dafa nekk loo xam ne c'est de l'art le fait de présenter également une émission wala le journal télévisé nekk na loo xam tamit aar la su ma déggee da nga war a séduire charmer li nga xamante ne mooy sa public ba du ñu laasew ci li nga xam ne mooy seetaan bi aar boobu art de séduction boobu est-ce que lu ñuy jàng la wala dafa war a mën a nekk ci nit ki. normalement dina nekk ci nit ki ba ngi lay wax sax benn cours boo xam ne cours théorique la woon bu ma daan jàkkale. dem naa ba euh, di ko jox ay mag parce que fondation Friedrich Ebert daan na ma wax ma am ay mag yu ma ci tàggat parce que du jun journaliste rek ñooy wax ci télévision ñuy def par exemple euh, ku ci mel ni compagnie Alioune Tine dinaa ko citer parce que euh, boobu tàggat ma doon tàggat bokkoon na ci ca Banjul la woon mooy maanaam les droits de lobbyiste ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy intervenir ci télévision pour que seen message mën a am solo il faut que ñu war leen tamit ñoom la ñu am ci seen biir ci seen dënn di ko wax di ko partager ak nit ñi naka lañ koy mën a génnee ba ñëpp xaj ci ba ñëpp mën ci jot ci jotin mu gën a rafet donc euh, cours boobu doon def maa ngi ko tuddee woon euh, euh, le comportement devant les médias électroniques naka ngay comporté woo ci médias électroniques ma jëloon ci ñaari exemple yoo xam ni mën naa ni ci benn journal laa ko jëlee woon boo xam ni dafa daan def chaque semaine lépp lu ñu def ci télévision yi ñoom ñu koy critiquer ñu jëloon ñaari nit nag pour opposer leen ma fab loolu nag man faf def ci gëstu def ko def ko cours kii ministre la woon kii euh, du ministre waaye parti politique laa bon waaye dafa daan def campagne électorale ministre bi yàlla dafa def ñu wone woon ko ci benn séance de travail bu mu doon am ak élégance ak éloquence kële doon def campagne am nu mu solo woon am melokaan bu mu meloon ba pare am nu mu doon waxee kii di exemple kii di contre exemple ndax ministre bi dafa nekkoon ku dal ku teey ku am maanaam charme donc séduction bi nga doon wax ma nga ca woon ka ca des na ko yàlla bindee daf ko fab teg ku ci suuf parce que campagne bee taxoon mu sol col ko ba mu soloon ak coow la mu doon coow bu jëm kaw mais dama ni boo jëlee yooyu ñaar muy bii di exemple bi di contre exemple kële daf daan vociférer xam nga vociférer mooy wax ca kaw ba daanaka di di di gëte nit ñi kii tey wax wax ju dal ma ni lii différence bi nekku rek ci jëmm ji waaye cursus bi tamit foofu daf ci am solo ndax lii cursus bi gis nga ministre bi xam nga lan la woon comme ndaw si ñu woon léegi Dior Fall magistrat la woon te magistrat ba pare nekk procureur xam nga procureur booy seet bu toggee ci cour bi bu ñu defee ay plaidoiries yooyu ba pare moo jóg taxaw bu bëggee nit ki ñu tëj ko dana fexe ba ñëpp seen xel dem ci ni kii dañ ko war a tëj bu bëggee ju bàyyi ko dana wax lu tax ba nit ñi ñëpp xalaat ni kii daal normalement war nañ ko mën a jéggal kële nag professeur histoire la woon xam nga professeur histoire moom bindul histoire daf koy nettali rek mm-hmm. dañ ko ko idil pour bu nettali ko donc kii dafa développer lu ñuy wax laar de la persuasion di maanaam wax nit ki ba yey ko kii moom la développer ci jàngam. Mhm. kële nag cours magistral la xam la mu jàng mu ñëw sottil la ko na la koy sottile yaa xam ndax di nga taataan mu yegg. wala la ngay taataan fa nga yem moom. Mhm. donc loolu mooy problème donc daal nu ñuy joxe information. voilà mu ngoog ni ngeen di joxe information dafa am solo. dafa am solo wax ak nit ki ba nit ki li nga koy wax mu yey ko. Mhm. wala mu dugg ci xolom am na solo ba ci mën naa jël exemple ci sama nattango bi ma jàkkaar loolu boo toogee ci conférence di wax wala ci ay jàng champ religieux am ngeen ci seen kër koo xam ne rahmatullahi taala allah yàlla na ko yàlla yërëm muy Chérif Ousseynou laay lu taxoon mu nekk le marabout des jeunes parce que dafa amoon charisme et puis am na solo loolu tamit ci télévision. charisme dafa am solo ci charisme am na solo ci télévision. lan nga gis est-ce que personnalité am na tollu. personnalité est-ce que fi mu toll nii loolu nekkul di na sax sama laaj <laughs> loolu nekkul di laxas. Euh, xamul tax mu na sax li nga xam mooy charisme bi. na sax mhm. parce que ñun suñu jamono du ñëpp daal dem télévision di wax. suñu jamono même rajo du ñëpp daal dem rajo. yéen da ngeen amoon Léopold Sédar Senghor. da voilà yaa ko tudd ku wax. yaa ko hmm? tudd xam nga daan nañu xëy fajar comme nii ñëpp di xëyee fajar ci liggéeyukaay yu mel nii car bi di la jël si dafay klaxonné ba sonn parce que boobu yaa ngi ci yaay nelaw mhm. da ngay jóg tiit gàddu say dàll ak say dëbës dugg ci car bi mu yóbbu la boo demee boobu temps ñun amuñoon ordinateur ay téléscripteur moo fi nekkoon nga xam ni léeg këyit gi du sax bind bi sax du sax leer te nga war a ubbi brève yi te ca brève yi ngay ubbi six heures la doon doon bu ñu passé indicatif de station bi ba six heures cinq six heures cinq dafa amoon émission bu ñu wax le réveil musculaire te Léopold Sédar Senghor daf daan def gymnastique am ak réveil musculaire donc daan la déglu. <laughs> boo nee kenn déglu ba ak sa gëmmentu toj kaas yi wax lu la neex. <laughs> ba yaakaar ni pare na bu huit heures day jot. sa rédacteur en chef wala sa directeur buy ñëw ni mais président nee na nangam ak nangam xew na ci antenne bi. donc xam nga loolu bu buñ ko la ko dégtalee benn yoon ñaari yoon sans compter que daan na recevoir journaliste yi tous les six mois. Mm-hmm. di nga def attention ci li nga def parce que tamit mu wóor la am na ñu nekk sa ginnaaw. di xool li ngay def. Mhm. dana tax nga def bu baax attention ci li ngay def léegi nag xale yi est-ce que am nañu loolu. est-ce am nañ ko. ah Léopold bu dekkiwaatoon xaw ma ndax na kontaan ci ñun. Ah, tout de suite dañuy daal di ànd euh, góor gi Samba Ndiaye ak ganam Seydina Issa euh, Thiaw Laye ci li nga xamante ne nag moom lañu jagleel bés bi nee naa leen euh, à chaque fois dañuy daal di topp lii di information ñuy waxtaanee kon grotte boobu nga xamante ne ki nga xam ne moo di kilifa gi lépp loo xamante ne aajowu na ci boobule grotte lu ko soxal ak leneen ci ay information léegi léegi lay doon. exploser. voilà ñu dégg si ci li nga xamante ne moom mooy nag euh, sunu plateau ànd ak ki nga xamante ne moo di góor gi sama jaay ak ganam ñi ngeen ko xamee tey nag ñuy euh, màggal appelub euh, laaye nii tey di premier jour bi loolee waral nag kon góor gi sama jaay. Cambérène xanaa di nga dem dinañ ànd ak Seydina après ñu dem Cambérène na ne nañ ko ne laay ah. nañ ko ne laay <laughs> ñuy ndokkeel donc toute la communauté laayenne. Mhm. di ndokkeel aussi tout la communauté toute la oumma islamique. parce que jullit bu xewle rek mel na ne jullit yëpp xewle. Mm-hmm. donc euh, moo tax daaw euh, si vous rappelez teen ba la waxtaan waxtaanoon mooy teenu jàmmalaay bi ren nag ñu tànn grotte bi mu mel ni foofu la waroon démarrer sax parce que foofu la lépp sosoo alors euh, mais avant ñuy dew dugg ci waxtaan bi seen bu démb demoon nañu ca Ngor ca xuntu ba. parce que la donc kamp man dama dem ba mu fay dugg sax xaw naa tiit tuuti quoi. <laughs> ci kanam ci kanam mais euh, dem nañ fa donc jël ay image ak euh, Doudou Dabo ñuy koy remercier euh, donc sans plus tarder dañuy ànd ak Modou Diouf xool élément bi su ko defee ñu campé débat bi door a ñëw ci waxtaan bi. أقصى المغارب دليلا في بلدتي وجنت نجدا للمسيغايات سيدنا الإمام لاي ولا يجاوزون دكار راكبين خطو إلى المغارب لا ولا ياتي سيدنا الإمام لا يتا دليلا سخيخا عندما بسي في كل ما قاله أهل الدلالات بايلاي فما شد تربة البيداء في بلدتي place bu sell bu mag bu am leer bu màndi ci ay ngëneel ci ak jaar-jaari yonent mooy place bi di place boo xamante ne nekk na màndarga mu rëy ci dikkub limaamul mahdi yu fi axiri zaman ci mujjug jamono muy place boo xamante suma maam Seydina Limaamu dafa nettali benn taalibeem bu ñuy wax a cheikhu Matarloo moo tax ma Matarloo bi mu koy wax sax dafa wax ne xibaar na ma maanaam nettali na ma ku ko nettali yonentub yàlla bi Seydina Limaamu lu mu ko nettali mu ne dafa wax ak moom Baay Laay moo wax ci gémmiñam mu dugg ci noppam moom Matarloo mu ne ko xuntum yi mooy place bi suma maam ne ko Matar Lo am naa fi lu ëpp junniy at laataa may feeñ di seet ban xeet laa war a dal lu jiitu loolu nag mu xamal ko ne bërëb la boo xamante ne yonti yàlla xudar alayhi salaam daana fi jullee ay jamono sunu xudar bi àndoon ak Moussa e, mu nekk it e, yonti yàlla it xiila musala li xudrati alayhi salaam wa xiila musala li Ibrahima mu ne yontu yàlla Ibrahima it daana fi jullee mu ne waaye moom Seydina Limaamu alayhi salaam bi nga xamante ne yàlla namm na ginnaaw bi mu fi amee junni at mu nar feeñ mu ne nag li ëppoon solo ci place boobu nga xamante ne moom la ne woon mu ne nag eh, dañu toll jamono boo xamante ne waa jamono dañu woon bàyyi place bi xamatuñu woon li fi ne mu ne nag am na loo xamante ne géej gi nag ci la ko lekk waaye nag li ci ëpp solo mooy moom Seydina mu fi nga xamante ne fa la leeram nekkoon junni at muy gorot bi moom mu ngi fi moo tax place bi di place bu rëy bu am leer boo xamante ne mu dafay màndargal lu rëy ci àdduna parce que bu ma nee àdduna Seydina Limaamu c'est universel. bay laay mooy ramu jaam ñi ramtum bi wam kon daal salaatan wa tasliman ala xayril wara maam li maamu leeram gi moo raw mu jant voilà ni ngeen ko gisee mu nekk kon euh, grotte boobee nga xamante ne euh, bëri na histoire bi nga xamante ne kon dinañ ci ànd ak euh, moom Seydina muy indi caay leeral ki nga xamante ne moo di góor gi Samba Ndiaye muy mbir bu doy nag xam nga mhm. bëri na particularité buy faral di am ci suñu ay nitu diine mhm. mais man personnellement bésu Seydina Limaamu Laay man dafa ma xaw a xaw ma dafa leerul trop ci sama bopp mais yaakaar naa ne di nga ci indi ay leeral ci kanam tuuti parce que dafa ay mbir yu euh, doy waar la ah. mais communication bi aussi des na des na jàll. Mhm. donc xam nga lu lu lu lu lu euh, sunu professeur doon wax léegi nii. Mhm. persuasion donc dafa am solo. Mhm. donc communication soo koy def essayer convaincre nit ki. ba li nga xamante ni moom nga koy wax noonu dugg ci boppam ba mu jàpp ko donc loolu xaw aussi xam naa euh, liggéey la boo xam ne ñoom dinañ si gën a taxaw mais ñuy wax ci leer googu parce que nee nañu leeru Seydina Muhammad ba mu génne àdduna euh, ñetti fan troisième jour bi donc la leer gi génnee ci bàmmeel bi donc euh, utali fi nga xamante ni moo di euh, ngor boobu noonu ci grotte boobu alors Seydina soo ñu nar a expliquer un peu processus bi donc ak yan exemple wala yan bind la Seydina Limaamu Laay bind wala yan kàddu la wax ba ñu mën a jàpp que ne leeru yenentu bi sallallahu alayhi donc moo ñëw foofu noonu Euh, par conséquent Seydina Limaamu Laay mooy yenent bi waaw dafa maa ngi am mbégte ci question big ma laaj muy question bu am solo parce que bu ñu delloo yàlla suñu borom moo wax ci alxuraan ne bépp xeet boo xamante ne bind naa ko dinaa yebal ndaw ci moom ci ñooñu ngir lan ñu jotale suma mission ñu jotale man li mu bëgg ci lañu ñu envoyé ay yonent waaye yonent yooyu ka nga xamante ne mooy seen njiit di seen kilifa di Seyduna Muhammad ba mu ñëwee ñoom ñëpp dañu topp ci gannaawam ñu xam ne kii mooy ki ñëpp doon xaar li ko wana li koy waral mooy démb Isa ibnu Mariam moo leen bégaloon ci wàccuk yonti yàlla Muhammad mais mu ngi ci alxuraan mu xamal leen ne day yéen suma xeet maa ngi leen di. dénk dénk maa ngi leen di euh, bégale koo xamante ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp te yàlla moo tax ñu binduñu waaye day bu ñëwee day. na ngeen ko topp téye ko diine ji mu leen jox ngeen jàpp ko te xam ne mooy dinay dëgg euh, nu mu tudd mu jox leen tur wa ci alxuraan ne leen bu ñëwee mu ngi tudd Ahmad waaye bi yonent bi feeñee mu ngi indi turu Muhammad mais terewul dañu ko weddi boo xoolee amul différence mhm. Ahmed ak Muhammad benn la mais ñoom dañu ne yonent bi Isa Ahmad la leen wax déclaré wul Muhammad mhm. moo tax ñu weddi ko ñu bëri ca ñoom réere ko weddi ko mhm. Muhammad moomu Euh, nga xamante ne ñun ñëpp moom ci moom lañu lañu lañu jokk ci moom la ñu yaakaar ndax moo tax ñu bind ñu. Mm-hmm. moom dafa bi mission wam di jeex. Mm-hmm. dafa dafa bégale xeetam euh, dikku limaamul mahdiyu téere yi bind ko. Mm-hmm. mu doon lu wér te jàngkat yi xam nañu loolu. bi mu annoncé dikku limaamul mahdiyu waaye it wax na leen ay tegtal. ay ay ay tegtal yoo xamante ne ay màndarga yoo xamante ne bu ñëwee limaamu ci lay ci lay feeñ ci at ma ca lay feeñ ci lay ci ak màndarga ya muy àndal ci wàllu muxjiza mm-hmm. ay kéemtaan yoo xamante ne dina ko làmboo mm-hmm. moo tax bi nga xamante ne génn na àdduna mm-hmm. ci tënk parce que temps bi yu mayuñu comme ni nga ko doon wax eh, dafa toogul ci bàmmeelam lu ëpp ñetti fan téere yi bind nañ ko euh, muy lu wér jóge na ci bàmmeelam waaye li jaaxal àdduna mooy fan la war fan la leer gi war a toxu leer googu nag moom Seydina Limaamu alayhi salaam lu jiitu loolu fekk fii ci saw bi dafa feesoon ak njubadi ak tooñ ak lëndëm ak euh, ay fétiche yu demee noonu ci jamono yooyu nga xamante ne mu ngi tar waa sow dañu fi jóge woon mhm. booba Cheikhu Omar rekk moo fi ne woon mhm. ci koo xamante ne moo yor yoon boo xamante ne yoonu diine la yoonu ngëm mhm. siraatal mustaqim ñépp dëgmal di ko uti ngir mu wàllu leen xittali seenu xeet ci la waa tànk waa sawu jant yoof defoon délégation bu takku daldi demoon seetu seeti Cheikhu Omar bi ñu demee fanaan nañu fa ci la leen Cheikhu Omar Euh, tatagal ñu toog waxtaan ak moom mu laaj leen lan moo doon seen tànk ñu ne ko ñun dey dañu dégg yaa ngi woote diine di gindi nit ñi ki ngir teg leen ci siraatal mustaqim ñu ñëwoon ngir jàppale la ci jihaad ji ci la leen Cheikh Omar ne leen dellu leen yoof sa tànk ngeen toog yéen doo leen ñoo xamante ne da ngeen war a fekki diine mm-hmm. diine dina leen fekk si booba xam na ki jur limaamul mahdi ci jotaay bi mais waxul ñëwul rek ne ko yow yaay jur limaamul mahdi yu ne yéen ñii di góor boo leen demee ku ca am doom muy góor di sa taaw na nga ko tuddee limaamul mahdi yu tur boobu Seexu Omar moo ko moo ko déclaré ci lébu gi ne leen ku ci am doom ci at moomu muy limaamu muy góor na nga ko tuddee limaamu moo tax ñoom ñooñu ñëpp ci année boobu ña ca jur doom jigéen judduwul ñëpp ay góor lañu mais ñoom ñëpp. limaamu la ñu tudde du woon benn limaamu. limaamu yu bëri la woon. Mhm. waaye limaamu yooyu. Mhm. Euh, yàlla di def euh, dunduñu ñu ci bëri dañu génn àdduna. Mhm. Euh, matoon na fukk ak ñaar. wala lu ko ëpp ci ay limaamu. waaye limaamu yooyu yëpp dañu génn àdduna bi ci dund mooy limaamu maam Alassane ak maam Kumandooy mii nga xamante ne. moom la ñuy moom la ñuy ñaan defal appelam moo tax mu wax ne waraama kullu la bii bin ismu mahdiyuna mu ne bi aami xam chin wanar chin min dalalaati waaw limaamu yi bëri woon na waaye limaamu yooyu yëpp dañu wor ba mu des benn limaamu mooy limaamu caw mii nga xamante ne moom la ñuy waajal ab wooteem muxjizaat yooyu nag dafa commencé woon di feeñ ci bi mu nekkee xale moom Seydina Limaamu parce que li tax papam automatiquement rek après mu xam ne kii la Cheikhu Omar doon wax parce que dafa am ay màndarga yoo xamante ne bi mu nekkee xale daf ko doon def te ñu xam ne lii du jëfi xale bi ci ëpp solo mooy mu ngi ñuy nettali ci busraal muhibbin bu ko papa Moussa na yónni ca àll ba ngir mu uti ay ay mat wala bantu saaxet mhm. mu ne daanaa dem ba ñëw te duma indi dara bu ko defee papam ne ko limaamulaay ana li ma la yónni mm-hmm. mu ne ko bàyyi day dem naa ci àll bi waaye am naa kersa lu tax nga am kersa mu ne ndax garab gu ma jub ngir dog ci moom mm-hmm. mu nuyu ma sàbbaal ma sujootal ma moo tax lii wane mbir moomu am na garab goo xamante ne dafa sujjootaloon Seydina Limaamu mhm. alayhi salaam mhm. ba fi ñu toll nii may wax ak yow mu ngi ci foire bi da ngay boo demee da ngay gis sujjoot bi mu sujjootoon ba léegi sujju siggi si foofu si foire bi mën nañ fa dem euh, xaw ma bu guy la guy la waaw mën nañu fa dem nga jël nga jël ay extrait ok alors euh, euh Seydina en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mhm. moom mission am je crois que yàlla dem na ba reconnaître que ne kii il a accompli sa mission donc indi benn vers verset mhm. al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum islaama din n'est-ce pas donc mais euh, yonent bi mission boobu noonu mu demoon ba nga xamante ni accomplir na ko mhm. indil ñu par exemple les cinq piliers nga xamante ni mooy lu ñuy guider moo ñuy yóbbu n'est-ce pas mais ban sens la amaat encore Euh, mission boobu noonu. ñëwaat di continuer waat ci ci sow parce que yonent bi comme li nga wax léegi ci limaamu yonent bi yàlla seddeel na ko ne moom ci askan wi yëpp. la ko la ko yor wa ma arsalnaaka ila kaafatan li naas nest message c' mm-hmm. euh, ki nga xamante ne dañ ko yónnee ci humanité bi yëpp la. Mm-hmm. alors est ce que amaat na encore euh, sens ñuy ñëwaat encore di continuer message am. waaw xam nga moom yonent bi pour ñu am comprendre ñun ñu dégg. yonent bi du limaamu moo ñëw woote pour àggali mission yonent bi yonent bi ni mu matale diineem ba mu mat comme ni nga ko waxee ñu ñu ñu ànd ak yow ci li nga wax moom moo annoncé dikkuk limaamul mahdiyu parce que xam na aaxiru zamaan comme problème yi ñu yi ñu doon expliqué nii dañu wax ne bépp téeméeri at dina am ku ñëw ci àdduna pour redresser waat jamono Seydina Limaamu dafa ñëw ci ci pour pour indiwaat solution parce que ci ci jamono ji ñuy dund ak ni jamono ji yàqoo maa ngi lay wax euh, ne euh, ñun suñu xeet dafa dafa ñaawoon ci ay ay ay xam-xam bu ñuul loo xamante ne du diine yàlla gërëmu ko mais bi mu ñëwee la yonent bi defoon loolu la indiwaat dafa ñëwaat loolu tax mu ne yon limaamu ne fa yonnen te ba summi dàllam wa mu ne boroom moo ñëwaat sol peer ba toppaat ca tànkam ba maanaam diine ji dafa am fa mu yemoon moom mu ñëw solaat nu mu tuddee jëm joraat jëmm ja maanaam yonent bi limaamul mahdi yu moom dafa taxaw taxawaayu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom ci phase boobu la ñëw moom Seydina Limaamu taxaw ñu wax ne bu yokkee mooma bu wàññee mooma waaye li ñu mën a wax mooy yokk na te li mu yokk waaw li mu yokk ba mu koy yokk metti woon la waaw parce que boo xoolee bi mu wootee dafa wax ne euh, suma boroom xamal na ma ne comme ni mu ko waxee ci alxuraan balaa ngeen julli na ngeen tudd yàlla ba seen xol fees ngeen taxawal julli mu ngi ci alxuraan bàyyi laay këram boo ñëwee dañuy dañuy tudd yàlla maanaam du ñu ñëw rek li xaam nodda rek li xaam kii dañuy zikr ba mu am 15 minutes nga xamante ne xol yépp dinañu delluwaat ci yàlla ku amoon problème stress dina deñ nga taxaw jàkkaarlook yàlla joxoñ ko jox ko li nga xamante ne moom la moom la indi mais ba muy def loolu dañu taxaw ne lii dafa xaraam parce que lii kii di def nii dafa xaraam mais tey àdduna mu ne leen nag téye leen rek di ngeen dem ba àdduna ngeen roy ci lii tey jàkk yu bëri balaa ñuy taxawal julli dinañu dinañu dinañu zikr bu ñuy yóbbu niiw dañu daan waxtaan di nga gis ku nekk te nit xëcc ko di wax mu ne na ngeen tudde yàlla parce que yonent bi dafa am lu mu wax na ngeen di jooyee seeni niiw ci kalimatu laa ilaha illallah mais ñi ko dégg-dégg ñu ñi ñi nga xamante ne am na ñoo xamante ne dañu ko dégg ne boo amee nit mu nekk ci sukkuraat wala mu sonn nekk ci ay jafe-jafe da ngay nekk ci moom di ko wax tuddal yàlla comme ni jigéen di nekk ci ñu naan kaan waxal yaa latiif yaa sàngam yaa sàngam te dafa bàyyi ba nekk ci yàlla danga koy nekkal ndax boo amee problème rek mu mu nekkal la mais doo bàyyi ba nekk ci jafe-jafe nga taxaw di def loolu bàyyi laay ne déedéet na ngeen fexe boo leen di fóot bo lépp loo leen di def na ngeen di de na ngeen di tudd yàlla parce que wax naa la ko keroog ma ne la yonent bi ci boppam yàlla wax na ko nee na ko ñii di ñëw ak yow amul kenn koo xamante ne dina indi lu ëpp doole baat bi baat boobu nag moom la limaamu alayhi salaam ñëw indi eh, teg ko ci këram mu mu mu mu mu muy muy léppi këram eh, bi mu defee loolu nag. Eh, waaw laay laay parce que mu ngi mu ngi laay laay yàlla loolu turu yàlla la waaw si waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mais léegi soo leen waxee laay laay cela veut dire que yéen da ngeen bëgg a wax ne yàlla ngeen xam nga ñaar ñaar moo fi am uh-huh. il fa que nit ñi nangu ko uh-huh. da ngay dee boo ko nanguwul léegi. Mhm. boo deewee bu ñu la dugalee ci bàmmeel. Mhm. di nga ko nangu. effectivement parce que bàmmeel ñaar moo ci am. Mhm. abdullahi. ak aduwallah. maanaam malaakam yërmande bu ñëwee daf lay wax. jaamu yàlla bi. abdullahi. abdullahi effectivement bu fekkee naroo texe mu ne la aduwallahi. noonab yàlla bi. kon Seydina Limaamu dafa teel a xam loolu. moo tax mu teel ñu ne. dellu leen ci teg leen seeni sant yéen ñëpp ngeen santalaay. bu ko defee doo xam kii géwél la doo xam kii tëgg la injustice du am parce que koo gis rek da nga koy jàppe ne kii suma mbokk la dama ko war a jàppale ci suma alal dama war a dugg ci xeetam lépp dama ko war a jëflante ak moom moo tax mais mais su ma ñëwee ci waxtaan parce que mhm. en fait loolu débat bu yàgg la quoi mhm. avant Limamou Laye mhm. suñu rab Mansour Mansour al-Halaj bu nekkoon Iran condamné nañu ko rey ko ci lu mu waxoon dem ba jaamu yàlla ba toll foo xam ne dafa wax ne anal xaq donc anal xaq su ko waxee mooy man may yàlla quoi donc ñu rey ko si loolu noonu mais ñu ko reyoon peut-être si jamono boobu noonu foofu la ñu toll woon cela veut dire que léegi su ma ñëwee dama na suñ koy méngaleeg lii nii dafa mel ni ñooñu noonu euh, lu Mansour alxalaaj boobu waxoon donc moom la maam li maamu laay ñëwaat encore euh, waxaat suñu de su demee ba mu nar leen santale laay parce que laay laay allahu turu yàlla la waaw xam nga xam nga xam mooy li ma ñun ñëpp yàlla moo ñu bind. effectivement sa doom sa sant la yor. Mhm. sa sant la yor. Mhm. moom la ñuy bind ci ay ay ay ay kayitam. Mhm. mais Seydina Limaamu alayhi salaam moom dafa reconnaître ne yàlla moo ko bind moo ko moom maanaam li nga moom sa tur nga ciy def parce que sa alal la yaa ko moom sa kër sa tuur nga ciy def effectivement sa bu juddoo sa sant nga koy jox. Mhm. utal ko tur bu la neex. Mhm. mais yàlla moo ñu bind. Mhm. ba pare nag tënk ñu. pour ñu bo nekk ci keppaar. urum bi nga xamante ne. moom bëggul ñu génn ko. saa yu ñu ko génnee rek. ñu ngi nekk ci mbugalam yàlla. moo tax bu ñu bëggee am jàmm dañuy toog ci ligne bi nga xamante ne. Mhm. fa la ñu yàlla teg Seydina Limaamu dafa teel a comprendre loolu. Mhm. moo tax mu ne suma waa kër. Mhm. ni ngeen yàlla moo leen bind. yàlla moo leen moom. balaa ngeen a dee ñu leen di delloo ci yàlla. delloo leen seen bopp ci yàlla ba tey bokkul ak ak ak ak kii ba leen ngay wax. ok non bokkul moom dafa dafa xam ne yàlla lépp yàlla la mu jëlaat léppam jébbal ko yàlla. mais da nga ciy gis jàngat bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy dund ñun euh, laay mm-hmm. maanaam boo ñëwee euh, yoof da ngay am facilité maanaam dangay ngay da ngay noppalu mm-hmm. euh, fi ñu toll nii may waxee ak am na ñoo xamante ne boo leen nuyoo laay mm-hmm. wala nga nuyu leen dañu lay wax diw sàngam lañu sant ba dañu ciy mer ah oui waaw am na ñoo xamante ne boo leen waxul seen sant dañuy mm-hmm. mer. Mm-hmm. jaral na leen ñu dogoo ak yow. Ah mais ñun dem nañu. tey ñooñu xanaa bokkuñu ci communauté bi. ci communauté bi lañ bokk mais ñi ñi nga xamante ne du ñu ay laayeen. ok léeg-léeg nga nuyu ci nit mu ne la bu ma waxati laay santuma laay. ok maanaam bu ma waxati yàlla. Ah ah, parce que ànduma ak yàlla. ok léegi maintenant maintenant léegi avant ñuy dem ci deuxième kii bi parce que am nañ beneen extrait donc de voix. waaw extrait bi sinon mën dem xool waaw extrait bi am na sens parce que. lu tax ñuy euh, dem foofu noonu. parce que xam nga appel bi premier jour bi euh, suba bi Cambérène la ñuy dem donc ngoon bi ñu tasee fee ne lu tax ñu fay dem aussi il faut que ñu lii ko donc moom ànd ànd ceeg moom avec la complicité de El Hadj Modou Diouf su ko defee directeur ñëw wax ak Mame Anta Modou bismillah. يا معشر الإنس والجن إني رسول الله إليكم wootee nag ñëpp dinañu la uy si ajibu daaya laahi yaa maxsaral insi wal jin rasulullah dafa oo nit ak jinne moom Seydina Limaamu te bi mu oowee nit ak jinne ni ko nit ñi uysee noonu la ko jinne yi uysee moo tax place bi bokk na ci place yi nga xamante ne euh, dafa bokk ci li tax ñuy li waral ooteb Seydina Limaamu moo tax waruñu def appel ba mu jeex ci place bi parce que place bi dafa bokk ci bu dee garab la dañuy wax ne dafa bokk ci reen yi li ko téye maanaam histoire la mooy cosaan bi fii la fii la fii la fii la fii la fii la takk-takk euh, bi takke bi mu jugee mag euh, pétantal bi bi mu jugee mag fii la flambeau bi juge fii la toog wër àdduna fii kulli jihatin adduna ba mu daj nee na bis bu jot yàlla dina ma dina dina dina dina ma may ma wër àdduna loolu nag bu ko waxee dina neex a dégg parce que euh, yàlla ci ci ay dogalam ci kantanam mën na lu ne moom bis bu jot ci ay waxtu yàlla dina ko may mu wër àdduna ñu ne loo ci jublu mu ne ngir xool man limaamu ci ban xeet laa war a wàcc mu ne waaye wër naa xeet yépp waaye wenn xeet rek la ma yàlla wan ñu doy ma ci seen melo ci seeni jikko ak seeni doxalin ñu ne ko woowu mooy ban xeet mu ne mooy xeetu ajam ajam ajam nag ci biir ajam mu ne wamaara aytu suma ku leen gën suturlu wa albisu min niswatil lébu penkoy penko dina ñëw xar ba xar ba voilà mu nekk kon li nga xam ne moom mooy leeral yi euh, jóge ci ki nga xamante ne moom lañ fi dalal tey euh, di euh, Seydina Issa Thiaw Laye turandoom nga de ah? moom lañ la tuddee wala yow da nga am keneen ku ñu la tuddee ñu ma tuddee hmm, moom lañ tuddee moom lañ moom lañ tuddee Seydina Issa donc Seydina Issa bokkul ak Seydina ah, Limaamu non non Seydina Limaamu amul photo ok donc kii ñu def nii photo mooy. kooku mooy Seydina Issa Ruhullah. d'accord mooy Seydina Issa doomu Seydina Limaamu la. ok d'accord <laughs> boo waxul de yaa ko yëg yow euh, kii euh, nu mu tudd moom mi xam sa nu bu ko tuddale góor gi de góor gi ku baax la euh, voilà ñu dellusiwaat ci suñu plateau euh, ànd ak ñi ñi nga xamante ne ñoom lañ ci àndal man nag vraiment euh, bàyyi ma bi rek Pape Ndiaye <laughs> maa ngi lay nuyu. mer daal day jeex. man de dama laa la. mer moom day jeex waaw ñi ma bokkal plateau bi di nuyu suñu invité maître Ayo Diop. di nuyu également mbooleem ñi nga xamante ne ñoom ñuy bàyyi xel di am yaakaar rek ni waxtaan bi ñu fi nar a sumb tey dina problème ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu. Mhm. wala ñu ñuy seetaan. voilà comme ni nga ko waxee nag euh, ñuy dalal sa gan yi tamit di ko bàyyi euh, mu nuyoog ñi nga xam ne ñooy seetaan bonjour. bonjour madame dégguma la bu baax <laughs> xanaa da ngeen ndékkiwul boobu. si si maa ngi leen déglu bu baax yéen que ni yéen waxul bu baax. <laughs> voilà ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau bàyyi la nga nuyoog ñi seetaan. waaw maa ngi leen di fay euh, di leen di rafetlu liggéey bu bi ngeen di def ci askan bi. Mhm. lool. gis naa ne am na touche positive moom laa doon wax léegi Pape leen ñaanal ngeen jëm ci kanam parce que je crois que Walfadjri euh, am na rôle bu muy joué rôle bu important dans la nation. merci mhm. voilà ci kanam touti nañ dikk ak yow ci waxtaan wi je rappelle que Pape Ndiaye tey li nga nar a waxtaanee mooy lu jëm ci wàllum nationalité euh, dinañ ci dikk ak yow la mama am noo def <laughs> maa ngi nii rek ci loo ne. maa ngi nii sax wéetoon nga de dama laa bàyyi woon. ana coow foo ko bàyyi. moom wër naa ko ci kër gi gisuma ko. mi ngi ñëw ci noo non copkaan la mooy loolu. <laughs> voilà euh, ki nga xamante ne nag kon moom lañuy àndal euh, muy euh, Pape Ndiaye. waaw man de dafa am condition bu mu tegoon tey pour démarrer. li nga xamante ne moom mooy rubrique waxal bu ñu paree li jëm suñu problème. ay ca bokk waaw kon li ñu doon waxtaanee tey mu jëm ci wàllum nationalité daanaka mu nekk loo xamante ni dafa soxal sénégalais yu bëree bëree bëri sollicitation yu bëri woon ci trop ba taxoon na tey mënuñ ci woon ñàkk wax euh, ñii dañuy bëgg xam naka la ñuy def pour am ko moo xam say wajur sénégalais lañ wala tamit jigéen ñi nga xamante ne dafa am borom kër boo xam ne du Sénégal naka la koy def na naka lay jaar ba am nationalité waaye tamit góor gi nga xam ne dafa am soxna gudul sénégalais naka lay def ba am li nga xamante ne moom mooy euh, nationalité le débat également qui est entretenu autour de la double nationalité également dinañ ci wax est-ce que yoon digle na ko est-ce que yoon daf koy tere bu fekkente ne antérieurement da nga amoon benn nationalité ñëw bëgg am nationalité sénégalaise ban yoon ngay jaar mais également bu fekkente ni sénégalais nga bu amoon nationalité nga war a amaat benn bëgg changer nationalité loolu yëpp également euh, dinañu ñëw euh, waxtaan ci indi ci leeral yi nga xamante ne euh, moom moo ci war waaye tamit ki nga xamante ne pièce à fournir yi maanaam ki nga xam ni dafa bëgg am nationalité sénégalaise yan kayit mooy yi nga xamante ni moom lay joxe ndax am na fay ndax amul fay toutes ces questions dinañ ko leeral ci biir waxtaan bi nga xamante ni war nañ ko séq ak maître Aye Diop Aye Boun Malick Diop Euh, nekk greffier nekk également secrétaire général syndicat des travailleurs de la justice muy ba kuréel gi nga xam ne moo ëpp mbooleem greffier yi ak secrétaire yeeg ñeneen ñi nga xamante ne euh, ñoo yëngu ci wàllub yoon euh, alors yow greffier nga justice sénégalais yi ñi ngi ci gënoon baaxoo di dégg ak ràññee leen ci mooy magistrat yi muy juge ak procureur yi ak tamit ñi nga xamante ñoom ñooy avocat yi waaye mu mel ne am na beneen bànqaas ñoom la ñuy woowee bi mu solo mais damay wax greffier tey ko bëggoon définir mën nga ci bind thèse parce que effectivement dafa nekk koo xam ne feeñul ndax liggéeyam dafa ànd ak noppi liggéeyam àndul ak wax moo tax boo daan gis bu yàgg ba daawul feeñ ñeneen ñi rek lañ daan dégg mais ci tënk greffier mën naa wax ne mooy bët ak nopp askan bi ndax ay nit bu ñëwee taxaw ci kanamu yoon di layoo ñay layoo dañoo am ay àq ak ay yelleef waaye tamit ka leen di àtte dafa am ay warugal léegi am na koo xam ne xool di déglu askan bi ba ëllëg bu buñ la àttee boo d'accordul di nga ne man ah duñ ma xañ sama warugal fii duñ ma xañ sama yelleef fii wala àttekat bi deful obligation bi donc loolu yëpp pour xam fu dëgg gi féete am na koo xam day toog ci salle d'audience bi di bind la fa xew yépp ba ëllëg bu werante amee rek la muy doon bind la ñuy ñëw ne ah dañu xool la bët bi ak nopp yi kii kooku nag liggéeyam àndul wax muy benn ñaar ah, importance am toll na fa nga xam ne yoon dafa ne àttekat bi lépp lu mu àtte bu fa greffier bi nekkul baaxul moo tax décision de justice boo leen jël ñaari nit a koy signé àttekat bi ak greffier bi parce que greffier bi moo koy jox la ñuy maanaam authenticité mooy ak li nga xam ne mooy tax askan bi nangu ne lii duñ ko rendre au nom di peuple sénégalais décision boo rendre te greffier nekk fa maanaam mën nañ jàppee ne ça n'engage que la personne qui l'a rendu ndaxte askan bi amul seede xam nga li olof di lu amul seede baaxul loolu mooy mooy rôle greffier waaw ci benn euh, pàcc waaw. Mhm. jërëjëf comme ni nga ko waxee rek ah buñ naroon yaatal euh, importance bi nga xam ne greffier am na ko ci justice dinañu jëlal temps bu bëri. léegi pour dugg ci waxtaan bi. Euh, directement nationalité. Euh, lan mooy li nga xamante ni moom mooy euh, mode d'acquisition yi maanaam kan moo droit am euh, am droit am nationalité ak naka lañ koy am waaw Pape xam nga nationalité dafa nekk loo xam ne dafa am importance ci dundu doomu aadama ndaxte booy xool ak foo mënti dem nañ la laaj sa nationalité dayoom toll na foo xam ne sax dafa nekk lu ñuy wax pat kii la droit fondamental la droit de l'homme la parce que boo jëlee déclaration fond euh, des euh, des droits de l'homme bu mil 1840 euh, bu 1948 article 15 bi dafa ne nit ku nekk dafa am droit am nationalité mu ne waat tamit nit ku nekk kenn warul xañ doomu aadama nationalité loolu article 15 nu mu tëtti declaration des droits de l'homme moo ko ñun Sénégal très tôt bi ñu amee suñu indépendance dafa am loi bu ñuy wax loi 61 10 du 7 mars 1961 c'est-à-dire un an après indépendance la ñu am loi boobu muy organiser nationalité léegi muy ñëw ci léegi kan moo war a am nationalité sénégalaise nationalité sénégalaise ñaari façon nationalité moom li ñuy wax nationalité ci cosaan maanaam la nationalité d'origine ak la nationalité par acquisition maanaam cosaanoo Sénégal mais da dem nekk sénégalais léegi kan mooy sénégalais par origine ni ko yoon bi indee dafa bëri première condition bi. mën buñ mën nañu jàpp ne yow sénégalais nga si cosaan mooy sénégalais d'origine bu dee da nga juddoo Sénégal benn say waajur. mu nekk sa ci sag sa papa juddoo Sénégal bu double naissance double naissance yooyu amee rek yow nga juddoo Sénégal wala nu mu tëddee say benn waajur juddoo Sénégal du ñuy jàpp ne sénégalais nga ci cosaan maanaam sénégalais d'origine. bu loolu amul beneen condition am na mooy maanaam nga yàgg Sénégal. dëkk fi yàgg fee dëkk ba pare nag am taxawaayu sénégalais di niroog sénégalais di saf Sénégal kooku loolu la ñuy wax ci tubaab possession d'état maanaam bu ñu la xoolee kenn du la jaawaleeg indu kenn du la jaawaleeg américain kenn du la jaawale loolu loolu la ñuy wax la possession d'état maanaam nga yàgg fi mhm. ba pare am taxawaayu sénégalais muy possession d'état possession d'état nan la ko da ko yoon tojee mooy ngay comporté wu comportement la wax nga yàgg ci comportement wu sénégalais mais tamit population bi ak autorité yi di la traité comme sénégalais kooku mooy deuxième type sénégalais ci cosaan maanaam sénégalais ci origine beneen tibu sénégalais cos ci cosaan mooy ki nga xam ne benn waajuram am na nationalité sénégalaise bu sa yaay amee nationalité sénégalaise rek wala sa papa ne am nationalité sénégalaise rek tu es sénégalais kooku ci réforme yu bees yi la bokk ci yi nga xam ne mooy réforme bi dugg ci waaw 8 juillet 2013 bu sa papa amee nationalité wala sa am nationalité xoolatuñu nga juddoo fi wala sa waay am na nationalité am nga yow tee sénégalais d'origine nga. mu defaat beneen liir bi nga xam ne duñ koo fekk ci dëkk bi kenn xamul kuy waajuram ñu fekk ko fii ci Sénégal mu nekk liir nouveau-né kooku tamit du ñuy jàpp ne sénégalais bu fi cosaanoo la ba nag ñuy découvrir papaam bu dee baayam jooju du sénégalais lak fa la ñuy ne jàpp ne ah kii du sénégalais donc. kon sénégalais d'origine ñeent la mooy ki nga xam ne dafi dafi am double na double double euh, naissance yi ndeyam ak wala ba ak moomu juddoo fi wenn ci waajuram juddoo fi wala muy niru sénégalais taxawaale taxawaayu sénégalais wala nu mu tuddati benn ci waajuram am nationalité sénégalaise wala mu nekk ab liir goo xam duñ koo fekk fii xamuñu kuy papam xamuñu kuy yaayam ñooñ ñooy sénégalais d'origine léegi nag mu desaat beneen type de sénégalais muy nga ñëw nekk sénégalais c'est-à-dire par acquisition ñetti type d' acquisition moo am benn bi lu bees la mooy acquisition par mariage boo taxee ab sénégalais wala nga taq ab sénégalaise nga seeg moom juróomi at juróomi at yoo xam ne tasoo leen nu mu tëti mën nga demander ñu jox la nationalité sénégalaise mais à condition sëy bi tas à condition tamit ka nga taq pertul nationalité sénégalaise am ci juróomi at yooyu ngeen di dëkk kooku benn acquisition la deuxième acquisition bi Euh, mooy euh, nu mu tëddee xaaral ma xool sax dafa xaw a bëri waaw mooy acqui acquisition par mariage beneen acquisition mooy acquisition par. loolu lu muy wund mooy ki nga ad ki ñu adopté tey bu dee un sénégalais dala adopté un sénégalais dala adopté dofis da ngay nekk nu mu tëddee sénégalais bu dee tamit benn couple boo xam ne ci couple bi am na benn sénégalais ñoo la adopté. dofis da ngay nekk sénégalais mais adoption bi dafa war a nekk première adoption bi dafa war a nekk adoption plénière mooy maanaam adoption bu mat kooku dinaa dinaa la ko détailler plus tard beneen bi si même euh, kii bi nu mu tëddee adoption par filiation mooy yow bu dee da nga nekk nekkoo woon sénégalais nga am nationalité sénégalaise am doomu mineur kooku tamit si loi bees la bokk sa doomu mineur boobu d'office day nekk sénégalais kooku moo moo moom mooy xeetu. adoption euh, nu mu tuddati acquisition par filiation dernière nag acquisition bi ñu koy woy naturalisation c'est une déci par c'est une euh, euh comment dire euh, comment dire encore c'est une acquisition par décision euh, de l'autorité publique autorité publique bi mooy xool ne waa ji kat mhm. mën nañ ko jox nu mu tuddati nationalité mhm. ngir plusieurs raisons raison boobu peut day nekk njëriñu Sénégal wala mu nekk euh, affaire boo xam day jëriñ askan bi. ñu jox ko waaw en njëriñu Sénégal sax gis nañu sport ñoo xamante ne dañu war a dem compétir ànd ak Sénégalais leen nationalité loolu également dafa mel yu mel noonu. par exemple kooku sax sax tey euh, tey benn boo gisoon moom la ko mënoon jox tey boo gisoon benn waa joo xam mu nekk Sénégal day amal njëriñ Sénégal par exemple pour utilité publique soxla nationale dañ koy jox. comme <laughs> ah d'accord waaw léegi mu des mu des nag benn précision pour nga mën a am naturalisation il faut nga toog Sénégal lu nga dëkk fi au moins dix ans yoo xam ne fii nga dëkk ba pare am sa euh, résidence habituelle au Sénégal pendant dix ans ñu doog la mën a jox. Euh, nationalité par acquisition par décision administrative. ok donc ñaari type de ñaari type de nationalité yooyu am. Mhm. bu ci nekk ak ay pàccam yu ndaw yu nekk ci biir waaw. waaw euh, dafa am ñoo xam ne dañuy duñu def différence bi entre am yor carte nationale d'identité ak li nga xamante ni moom mooy euh, certificat de nationalité ndax dafa am ni ñoo xam ne dañuy bëgg def yenn concours wala dem fenn ñu bokk na ci yi ñu leen di laaj certificat de nationalité ñu bëri dañu jàpp ne bu ñu amee carte nationale d'identité rek doon nañu Sénégalais d'office. est-ce que c'est le cas. carte nationalité man loolu daf maa yàgg jaaxal parce que ni ñuy euh, joxe carte de carte d'identité nationale duñ lay laaj sa état civil rek établir la ko mais man dama dem dama daa xalaat ne le l'acte sous-jacent à la carte d'identité nationale devrait être le certificat de nationalité parce que euh, nit ki acte bi li mu tudd la carte d'identité nationale. extrait rek lañ lay waaw mais nu mu tuddati carte d'identité bi amul soubassement nationalité dangay gis ñoo xam ne mosuñoo am nationalité sénégalaise am carte d'identité nationale mais acte bi nga xam ne mooy prouver ne yow sénégalais nga mooy certificat de nationalité qui est diamétralement opposé nu mu tëddi de la carte d'identité nationale nga xam ne police koy délivrer direction de la sûreté nationale moo koy délivrer kële kii moo koy délivrer. mais kon fii tey bëri na ñu fuy jàppee seen bopp ay Sénégalais te doon na guñ ko de. waaw nga moo nekkoon euh, thème bi le mhm, ba mardi incha allah maman dama bëgg nga jàkkaarloo caméra bi nga laaj Modou Diouf mu yóbbu la beauté. <laughs> Papa Modou di beauté <laughs> ñu seetaan élément bi dellu si waat comme noonu nga ko bëggee nañ ko defee noonu rek dem ñëwaat. ayca bu élément bi yembee rek ñu dem dellu si. <laughs> été bi moom couleur yi mooy gën a garaaw moom mooy gën a tàng mooy gën a dem. waaw te moom couleur yi comme genre yëpp. instant bii mooy gën a dem couleur yi quoi moom la ñuy gën a bëgg. oui ak carax yi comme genre yi carax yi quoi couleur yi daal xam tàngaay moom lu mu gën a simple rek. gën a rafet gën a rafet lu mu gën a simple rek gën a rafet. caabi yi samay nit la ñoom comprendre nañu. Ah, ah. man ak ñoom ci Facebook bi yëpp duñu doy lu rafet lu am dañuy ñëw. Ah, instant bi génnee naa leen ay nippé affaire yi parce que moom lañ soxla woon fan yee ay ballerine laa indiwoon mooy genre mais léegi aj naa ko ci kaw. dafa dafa tàng quoi instant bi tàngaay bu ñëwee da ngay aj ballerine ci kaw dina dem mais ndànk-ndànk quoi parce que booy yi ñiy jàng tout le temps dañuy sol bale am na foo am na école yoo xam ne du ñu sol ay nippee mais bu ñuy génn mën nañu sol nippee affaire yooyu noonu moo tax ma indi nippee lu gën a bari ak ballerine ci kaw. instant bi nippee moo moo jigéen quoi ballerine moo instant bi daa góore donc wooyee donc góor jigéen waaw ci kaw a kaw. <laughs> yàlla dogal na dama am phobie wu ay araignée wak ay insectes ak yooyu noonu mais bi am araignée bi noonu bëgg naa ko trop xam nga araignée la xaw ma. gis nga dafa rafet dàll bi dafa rafet. Ah, araignée bi dañuy jël def ko waa fii de la ñu génn xam nga été oblige. comme ni nga waxee tendance bi instant bi fi mu toll nii carax la. Mm. donc noonu nag dañuy remercier ki nga xamante moo di Mortala Fall moom nekk marché Sandaga ak ñi mu fa nekkandool ñëpp nga xamante ne ñoom Serigne euh, Serigne waaw sëriñ Sène ñoom ñëpp Sandaga la ñu nekk nekk ñu baax wax dëgg yàlla mais it balaa loolu ma jaajëfal Betty mi nga xam ne moom moo jàpp ci mbir mi ba mu mën a yem moo jàpp sama combat mm-hmm. tey <laughs> mooy loolu tey bu ngeen gisee ñu dem doxantu ci marché bi dem xooli lan moo fay tendance tànk yi mooy ci dàll euh, été bi dafay waaj a ñëw comme mi ngi commencé di tàng xam nga ne ñu bëri dañuy am ay problème ci seen tànk seen tànk yi dafay ñàkk bu ñàkkee aussi dafay bul bul boobu te mën na indi mu am xet xet boobu muy indi nag ci seen tànk yi moo tax dañ leen di wax que ni ñu éviter bu tàngee ñu sol ay dàll yoo xamante ni dafay fermé wu gis nga euh, carax boobu nga gis nii gis nga ci kaw gi yëpp sax dafa fermé mais tere wu xaw naa aéré parce que am na décolleté ba nga xamante ni ne air bi dina mën a dugg ci tànk bi am na yeneen tamit yoo xamante ni leen nii dañuy jouer torop ci couleur yi dañuy jël ay ñetti couleur boole ko ci benn carax nga xamante ni leen nii yow lépp loo mën a sol dina mën a ànd ak moom muy avantage bu mag boo xamante ni leen nii euh, boo amee sa ñaax ba ñetti carax été bi yëpp mën nga euh, débrouiller ci loolu noonu nga xam ne lépp looy sol rek di nga mën a dina mën a ànd ak loolu noonu leneen li tamit mooy carax yi seerul noonu xam nga prix bu accessible la ci ñëpp ñi nga xamante ni leen nii moo di seen ay clientèle kenn ku nekk boo ñëwee budget bi nga am rek di nga gis carax bi nga xam ne moom nga fa mën a am te dafay nekk aussi tamit carax bu rafet carax boo xamante ni la nii macha allah dina rafet ci sa tànk muy ki nga xamante ni la nii dafa xees dafa xeere dafa ñuul ku nekk am na carax boo xamante ne boo ko tegee ci sa tànk rek di nga gis que ne carax bi rafet na torop macha allah te ñoom aussi dañuy créer yemuñu fenn rek dañuy génne seen ay création yoo xamante ni la nii boo comme araignée bi ngay wax noonu <laughs> tey doo bokkul bokkul ci yi ngay ragal ndax boobu du la def def dara koy teg ci sa tànk rek gis ne dafa dafa rafet carax yi aussi tamit dañ ci def ay accessoires def ci ay perles def ci ay cristal dal di koy accessoire kii euh, daal di ci def accessoires yi daal ba mu ba mu rafet ba nga xamante ni leen nii yow euh, mën nga sax bañ a takk yenn affaire yu bëri yi parce que comme ni ñi nit ñi di gisee sa bopp rek gis ne bopp bi rafet na jaar na yoon noonu la ñuy gisee sa tànk gis ne tànk bi rafet na jaar na yoon malheureusement na xëy na carax du ñëpp ñoo ko mën a sol parce que am na ñoo xam ne seen tànk dafa dafa yaatu torop léegi man fa bul dox ci ci ci ci kii. <laughs> Euh, dama bëggoon Pape Modou mayaat ma tuuti image yu tànk yi. Uh-huh. ñu xool ko parce que Coro xam nga d'habitude da ngay gis du ñëpp ñoo mën sol ballerine. Uh-huh. loolu c'est clair te du ñëpp tamit ñoo mën sol ay ay dàll carax parce que am na nit ki sa forme tànk nu muy mel uh-huh. boo solee ay nupied wala ay carax voilà gis nga yii rafet na macha allah bi tànk tànku la <laughs> kenn xamul. <laughs> mais mais c'est très joli en tout cas. mais am na ñoo xamante ne coro comme ni ma ko doon waxee léegi bu ñu solee ay ay nupied ñoom personne seen seen si seen si seen si seen yaram du ñu sentir à l'aise ak ñu pied ndax tàmm la am déet je sais pas beneen côté bi tam mooy ni que bu ñu ko solee du rafet ci seen tànk da ngay faral di gis koo xam ne dala naan man du sol parce que du rafet ci sama tànk mm-hmm. mooy expliquer loolu waaw xam nga tànk dafay am forme comme kanam ni muy amee forme nga xamante ne sa forme kanam lii la sa morphologie kanam lii la lii moo ci rafet lii moo la jàpp noonu la tànk demee noonu noonu la tamit ay loxo demee noonu ça dépend nit ku nekk ak ni ngay bindoo bind bi dafay wàcc ba ci say tànk ak si sa lépp forme forme ni muy mel tamit noonu la say tànk di mel am na ñoo xam ne seen tànk yi baaraam yi dañoo soreyantoo il faut que sa baaraam yi soreyantoo rek carax du la jàpp parce que carax dina gën a jàpp nga xam ne ay baaraamam dafa kebeloo ba pare tamit du nekk baaraam yu yaatu du nekk yu gudd parce que bu sa tànk guddee tamit nga sol carax pour mu gàtt mu jàpp la dafay dafay compliqué exactement donc liy gën carax daal ki muy gën a jàpp mooy ki nga xam ne baaraam yi non seulement dañuy yem mais aussi dafay kebeloo mais tamit teint bu xamante ni la nii dina bu dee dafa ñuul ñuulaay bi rafet bu dee dafa xees xeesaay bi daal di rafet bëri na ñoo xamante ni la nii tànk yi dafay am nu muy mel ba xam ne duñ ko mën a sol comme démb dañu am problème boobu ku ñu ko solal parce que koo wax mu ne la non non sama tànk bien vrai que dañ leen naa seen tànk yi sax du feeñ ndaxte waaw ñun duñu duñu wane nit tànk bi rek la ñu soxla mais effectivement euh, ci biir tànk yooyu noonu am na ko koy sol du valoriser dàll bi ah, parce que ah. dàll bi dafay mujjee mel ne lu ñaaw fekk na dàll bi rafet na ah, mais tànk bi ko sol moom moo rafetul donc mais tamit été oblige moom moom bu jotee moom wax dëgg yàlla malheureusement que mu jàpp la ou pas ñëpp dañuy sol carax léegi nag dafay dépendre ci designu carax bi ngay sol nu mu mel dafay am carax bu la gën a jàppante bu nekkee sa tànk dafa ñaaw dafa am yenn choix yoo war a def ci yenn carax yi am na yenn coupe yoo xam ne waroo koo sol parce que wax dëgg comme sa tànk rafetul loolu da koy gën a exposé nit ñi dañuy gën a gis ñaawaayu tànk bi donc yeneen carax yi koy gën a nëbb tey man nga sol carax yoo xamante ne ni dañ koo découpé maanaam ay la def doo doo gis forme boo ko yow boo gisoon ngasool ko duñu attardé wu ci sa tànk mais designu dàll bi ci loolu la ñuy nekk di xool ba nga xamante ne loolu mën na camoufler sa ñaawaayu tànk donc loolu noonu yëpp tamit nit ñi dañ ci war a bàyyi xel